mbokk yaa ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte bu yaatu dellu si ak euh, ci édition spécial bu ñu leen jagleel mu tukkee ci élection yi nga xam ne génn nañ ci euh, ni ki dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci euh, weer wi ñu nekk mu nekkoon mu nekkoon nag élection yu am solo daanaka ci tëralin bi ci doxalin bi ak ci coppeeku yoo xam ne itam am na ci yooyu élection ñu génn ci ci jàmm dibéer lañ ko amal daanaka altine ñëpp daal di dem liggéeyi loolu nag di taaral suñu démocratie ah, di taaral itam suñu suñu réew ci doxalinam loolu nekk loo xam ni ñu ngi koy apprécier bu baax a baax ah, ba tey jii ñu dellu siwaat nag ci émission bu ñu jàpp ni war nañ ci mën a waxtaan gindi ci askan wi ah, ci tolluwaayu élection yi ak jàngat yi ci def amal ci ay taxaw seetlu loolu mooy li nga xam ni moo sabab édition spéciale bii ñu leen indil tey gannaaw bi ñu leen nuyoo nag ma nuyu sumay gan ci suma ndijoor ñu ci ànd ak Moustapha Diakhaté maa ngi lay nuyu sëñ Moustapha. ah sëñ maa ngi lay maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp. di nuyu ñi ma bokkal jataay bi ginnaaw tuddagoo seen tur dama lay bàyyi nga def ko ndax gan du yeewi béy dëgg la jërëjëf nuyu waa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ñaan yàlla subhanahu wa mu baaxee nu ba leen fi wax nekk dëgg tam njëriñ jërëjëf euh, sëñ Moustapha ñu ànd ci ak Moussa Balla Fofana moom ci Pastef la bokk euh, moom itam ñu am wax dëgg yàlla di ko recevoir ci plateau bi ñu ngi lay nuyu monsieur Fofana. Pape Ngagne maa ngi leen di nuyu. am mbégte lool ñëw ci seen plateau tey. Mhm. di nuyu tam sama mag yi ma fi fekk. am mbegte lool ñëw teewe émission bi di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ba li fi waxtaanee doon loo xam ne day gindi askan wi. ñu ngi ci na nawee te bañ ñu ci xeeb. jërëjëf ñu ànd ci ak doyen maître Ousmane Seye moom ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. moom itam ñu kontaan ci dellu di ko recevoir ci plateau bi maître Seye ñu ngi lay nuyu. dana lay fay Pape di la nuyu di nuyu say téléspectateurs yi di nuyu Moustapha Diakhaté mhm. di nuyu Moussa Fofana. Mhm. di yaakaar ne waxtaan bi nit ñi dinañ ci jëlee dara. yaakaar nañ ko. Eh, jërëjëf maître Ousmane Seye kon dañu ni ñu tàmbalee rek damay doore ak sëñ Moustapha Diakhaté sëñ bi dañu génn ci élection yu. ni ki daanaka démb euh, ñu bëgg nag taxaw seetlu ko taxaw seetlu bi mooy li nga xam ni moo ci jóge maanaam li génne ci élection yi euh, ñu gis ni am na coalition bu ñu naan Yewwi Askan Wi def na ci ndam lu rëy ci ci ci fu bari euh, ci biir réew mi lu sax ñu bari njortul woon mu bëgg nag ñu taxaw seetlu ko bëgg xam ndax ndam li bett na la walla bettu la ak lan moo ko sabab Euh, jërëjëf d' abord ci nuyoo bi ginnaaw tudd moo leen seen tur muy Balla Moussa ak euh, maître Ousmane Seye Balla maa ngi koy door a jàkkaarloo mu tey maître moom suma ku yàgg ak man la mhm. maa ngi leen di nuyu di am mbégte bokk ak ñoom plateau bi euh, li ma gën a béggee mooy d' abord mhm. damay wax toujours ne sénégalais cest à bu ñu xewlee coow li day bari ak fitna mhm. waaye bu Sénégal xewlee moom jàmm rek mooy am boo xoolee depuis 2000 ñaari coow dina bari bu élection jubee waaye bisub élection réew mi danaa teg nit ñi woote ñibbi loolu nag mënumaa def lu dul bëgg ko bokk na ci li nga xam ne jàpp naa ne ñun waa Sénégal. àdduna bépp nawe nañ ñu ko nit nag lu ñu ko nawee daf ko war a fonk. maintenant pour affaire globalement ci élection yi li ci génn nga xam ne maanaam leçon bu ñu ci mën a tiré la mooy effectivement coalition Yewwi am na jéego yu yu mu dox ci ay wàllu ndam yu mu am. Mhm. maintenant nag bëgg naa tuuti parce que ginnaaw dañuy wax ak nit ñi ma bëgg ñu comprendre lu bare bari souvent damay dégg nit ñi ne benn bokk yaakaar dafa perte Ndakaaru loolu jàpp naa ne du wax bu jub. Mhm. parce que nit li muy ñàkk mooy lu mu am. Mhm. nit mënut a ñàkk lu mu amut. man 2012. 2012 ah mais nag da ko doon joŋante. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw da ko doon xëccoo loolu xam naa ko xam nga 2014. Ah, looy xëccoo boo ko amul perte nga ko. non non non non non cest ah. xam nga commune boobu moom ba ñàkk ko nga perte commune bokk commune bu doon ko. ah mais boo ko doon ut. Ah, xaaral bàyyi Marie Marguerite damay ah, expliquer loo xam ne jàpp naa dama bëgg nit ñi xam ko. parce que mooy tax ma bëgg li ma bëgg a wax feneen ma am njëriñ. d'accord allez-y donc 2012. 2014 mhm. ñun man boobu maa ngi foofu dàqaguñu ma ñoo ñun Dakar gañu benn commune lañ fi gañewoon benn commune wala ñaar muy euh, Yoff ak ak euh, ak ak Gorée. 2012 mhm. euh, Rufisque Benno Bokk Yaakaar gañewu ko woon PDS moo ko gañewoon 2014. Thiès Benno Bokk Yaakaar gañewu ko woon yë réew mi moo ko gañee 2014 Benno Bokk Yaakaar gañewut Ziguinchor Abdoulaye Baldé moo ko gañe kon ko commune yooyu ak ak Diourbel aussi la même chose mënuma jàpp ne dafa nekkuloon commune yu bennoo yor ba ko ñàkk maintenant doon na ko wut amu et c'est là où la amee solo jéego yi nga xam ne euh, Yewwi am dox na ko parce que une ville aussi stratégique aussi importante que Guédiawaye rek même boo ko gañee am na ndam mieux non seulement gañe nañ géej waaye mais téye nañu foo xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko yoroon par exemple benn Dakar téye nañ ko euh, beneen bi beneen victoire boo xam ne ci opposition am na ko bon entre guillemets laa koy tudde parce que xam nga guma ndax opposition ba de muy mel ne parce que Kaolack je crois que bokk na ci les plus grandes villes du Sénégal c'est-à-dire lan nga ci lan moo la ci leerul Kaolack. waaw ah non xam nga Serigne moom moo ko gagné. mais Serigne man mënu ma ko mënu ma jàpp ne opposition la bokk. Ah, waaw mënu ma koo jàpp mais xam naa ne moo ko gagné. je crois que c'est une c'est victoire importante pour Serigne xëy na mën na ko expliquer mais jàpp naa ne war warees na ko mën a gëstu parce que quand pour la première fois une grande ville ndongo daara gagné ko bëriwul lu am Sénégal je crois que loolu lu mat a gëstu la maintenant fu may ne aussi Yewwi dox na fa jéego bu rëy parce que. mais Kaolack dëkku daara la aussi. oui dëkku daara la mais bon <laughs> dëkku daara noo ko daara mën na ko mais vraiment c'est la la victoire de Serigne pour moi c'est important. maintenant beneen victoire bi. Mhm. bi nga xam ne jàpp naa ne Yewwi euh, jéego bu rëy rëy la dox muy la victoire bi nga xam ne euh, Yewwi am na ko. Euh, euh, comment il s'appelle je crois que compte de, de, la symbolique de Ziguinchor de tout ce que représente je crois que c'est une victoire importante mais dans l'ensemble li ma jàpp mooy cette élection yi ki ci am ndam dëgg dëgg dëgg Pape nga Ngagne c'est le peuple sénégalais et je crois que loolu ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel maintenant foofu itam dama am loo xam ne damay koy wax toujours ne ñun ñi def politique war nañ ko bàyyi su élection jubee nga ne fichier baaxut ministre de sàcc la préfet sàcc la. d'accord xaste ba tax mais bu élection jàllee boo gagné. neppat c'est-à-dire nit mënul ma dugal laaj rek pour am tontu ci laaj. ci mm-hmm. loolu parce que tontu bi dafa may daf may yitteel lool. Mm-hmm. mooy ndax bett na la wala bettu la mooy jéegooy ndam yi yeewi très sincèrement bu ma la aussi la la victoire de yeewi à Dakar. Mm-hmm. et la victoire de yeewi à Ziguinchor. défaite bi moo ma doon surprendre mais défaite victoire bi quand même nag parce que Dakar laa nekk ndax mën naa xam lu tax. oh xam nga d' abord. Mhm. Dakar day dëkk bu dëgër bopp. ah d' accord. Euh, bu ngeen seetloo depuis 2000. Mhm. benn yoon la ko nguur mas a gañe muy jamonoy Pape Diop. Mhm. boobaak léegi à chaque fois que opposition pouvoir ba ko gañe Dakar day bañ. mieux même boo delloo avant 2000 soo xoolee les années 88 93 ba nga ñëw 98 Dakar c' est toujours résisté a toujours résisté par rapport au pouvoir central donc moom mënu ma woon a bett maintenant Ziguinchor aussi. compte tenu de ce que cette contrée représente en termes de résistance en termes de refus par rapport au pouvoir central ça ne m'a waaw mais seen loolu seen biir la aussi élection locale la woon ñoo ko doon xëccoo ci seen biir. ça n'a rien à voir non gis nga c'est les Casamance la ñuy woteel Sonko. waaw xaaruñu sax Sonko defaree leen biir la xaaruñu ci moom loolu cest à pour ñoom seen doom la. il e dans la dans dans mi ngi ci ah, combat politique Ablaye Balde seen doom la. non non non bokkul Balde amul. gisuñu ko gisuñu ko mu bëgg a nekk président de la République. d'accord c'est-à-dire mooy ku nekk dëkk Casamance bëgg a nekk président de la République. d'accord ma jàpp ne gis nga vote boobu wotuñu ko sax pour ñu defar Casamance li ñu ko woteel parce que dañoo bëgg seen doom taxawaay bu gën a dëgër c'est comme ça que je dis ça. d'accord de manière objective quoi. merci bu ñu déggee li nga xam ne moom la Moustapha wax mooy daanaka gagné woo gañe woo leen dakaar mën nañ ko wax loolu parce que ki seen ay loxo la nekkoon maanaam opposition bi est-ce que itam victoire bi am nga si mbetteel wala moo ci mbetteel wala victoire bi liggéey la boo xam ni bu ngeen defoon la ba mérité ko lan nga ma mën a wax ci loolu maa ngi lay remercier ci question bu am solo bi avant toute chose dama bëgg a wax ne le plus important du victoire bi tey mhm. tooguñu fi pour bàkku mhm. tooguñu fi pour ndamu ndax projet bu ñu proposé tombeek ak askan bi bëgg loolu moo tax ñu jox ñu dañoo jàpp ne dañoo toog analyser situation budgétaire réew mi analyser situation financière réew mi analyser contexte économique pauvreté bi sur une longue période di analyser le comportement du président Macky Sall sur nan lay def son opposition ñu dund ci expérience yu bëri proposer quelque chose proposer lu leer Sénégal loolu nag proposition boobu dajeek benn demande sénégalais yi jox benn confiance loolu dañ koy jël ak xam importance bi di leen ci gërëm di ci sant mais dañ koy jël ak beaucoup d'humilité xam ne liggéey baa ngi door a door te nous n'avons pas le droit de décevoir. alors li ñu gisagum mais li ñu gisagum gisuñu ci humilité li ñu gisagum mooy ay caravane mhm. ay ay ay ay ay ay bàkku ay loolu la ñu gis. par exemple kenn ku ci nekk loolu nga def. donc loolu gis gisuñu ci humilité bi ngay wax nii yow. xam nga humilité bokkul ak exprimer sa joie nit moom tu es tu as des moments de plaisir comme tu as des moments de tristesse. Ah, boo ñëwee ci jongante. Ah, soir bi nga am victoire mën nañ la may. nga exprimer bul ma wax loolu itam. ah mais c'est évident Pape Ngagne tu tu ressens de la fierté ou du plaisir ou de la déception. Ah, tu es comme moi. <laughs> waaw waaw mais xam nga boo ma waxee humilité. alors que man gisuma li ma gis wax naa la ko humilité fu mu nekk mooy nga woo sa plateau di ma wax victoire ma njëkk ne la ñun jàppee wuñ ko victoire responsabilité conscience bi ñu am ci défi bi nga xam ne moo nekk suñu kanam foofu la foofu la rek nga waroon a jàngee ne ñii kat ils ont conscience que ne mbir mi du tëb di dal mbir mi instant bi mooy. en tout cas tëb di dal lañ liggéey waaw parce que c' est normal. Ah, boo boo gagné. suba sénégalais yi war na ñoo jouer bu ñu gañee mhm. j' espère ne war nañu mën a. féex après nag ñu ressaisir dem ci beneen compétition. donc foofu loolu laa bëggoon doore maintenant mhm. xam nga. c'est très c'est très réducteur de dire que ne Casamance yi euh, rébellion par rapport ak Sénégal musuñu faluñu Ousmane Sonko pour son projet dañ ko fal parce que seen doom la écoute politique ñëpp ñun ñëpp nous connaissons la politique politique politique commencé wala ak Ousmane Sonko fii ku fi nekk di nga am sa base le fait que nga juddoo fenn di leen représenter man mii di doomi Bawol su ma toogee fii je suis fier du Bawol et j'espère que les Bawol Bawol de moi mhm. mënuñ ko jël di ko di ko tage Ousmane Sonko juste parce que c'est Ousmane Sonko analyse boobu dafay biaisé je pense qu'il faut respecter les Casamançais Casamançais yi dañu xool Ousmane Sonko mu proposer leen un programme le programme Burok ñëw ne leen Ziguinchor je vous propose un plan de développement local avec près de cinq six projets sur l'ensemble de la Casamance je vous propose un mandat territorial ñëw leen ñun ñëpp ñu liggéey réfléchir sur naka la ñuy développer le territoire de la Casamance ba noppi ne leen projet deux programmes yi le développement territorial propose leen benn stratégie de financement je pense que ne nañu respecté Casamance yi xam ne lu mu compliqué compliqué ils sont suffisamment lucides xool Ousmane Sonko leen proposé bien sûr seen doom la kooku moom kenn amul lenn lu mu ciy parce que Moustapha Diakhaté mii doomu ab ab ab réew la ab ab tund la sant na yàlla buñ bëggee ci moom ñoom tam dañuy sant yàlla su defee luñ war a bëggee ci moom donc loolu dañ ko jël teg ko fële mënuñ ko def dénominateur d'analyse donc li ma bëgg rek mooy ñu xam ne Yewwi Askan Wi tey askan wi daf ñu sas ñu ne leen a yewwi waaye dañ ñu sas dañu ñëw te dégg naa ñu ne gagné wuñu nit ki munoo gagné loo perte je pense qu'il faut qu'il faut qu'on soit sérieux booy mhm. dem ci compétition ñu ne teg nañ ab raaya da nga soit da ngay gagné da ngay perte je pense qu'il faut faire preuve de gentleman nit ki lu mhm. mu mérité nañ ko ko jox mhm. ñun xam nañu ne yàlla defal nañu ndam ci kattanam ak mbaaxam askan wi déglu nañu comprendre nañu jox nañ ñu confiance ngir yàlla et sa on le di avec responsabilité teg nañu organisation bi nga xam ne moo ci war dinañu fexe ba si quelque mois nit ñi gis ne ñii kat xam nañ leen xam nañ ne liggéey lañ leen sas waaye ñëwuñu pour nguur loolu moom nekk na lu nga xam ne dañ ko dama koy wax de manière officielle et je le dis et c'est une voix autorisée qui le dit les maires de Yewwi Askan Wi ont un défi à à relever et ce sera pas facile parce que ñun xam nañ ne ñi nekk suñu kanam duñ ñu may dara maintenant dafa am lu am solo. on a gagné cees tey jii tey nañ fu dëgër a dëgër a dëgër Bawol téye nañ fu dëgër a dëgër Sine Saalum tey am na ndongo daara bu nga xam ne xëy na mënuñ ne opposition la mais li wér mooy xamaguñ ndax pouvoir la donc mën nañ ne bokkul benn bokk yaakaar téye nañ sud bi boo ko xoolee sur les huit territoires de ce pays on nous tenons les nit ñi xam nañ ne en démographie l'axe Dakar Thiès Touba c'est plus de cinquante pour cent de la population man dama gëm ne une nouvelle dynamique et la il faut que ñun ñu xam responsabilité bi ñu nit ñi teg ñu xam ne waruñu décevoir on doit proposer des choses concrètes et incha allahu rabbi ñu ngi demander ñi nga xam ne dañ ñu jiital ñëpp. Mhm. bu ñu jiital ba noppi rek toog duñu xool nañu ñëw ànd ak ñun ñu àndandoo liggéey. parce que nag maire. Mhm. c'est uniquement l'organe exécutif. c'est le c'est le conseil. municipal moo war a toog waxtaan avec des commissions consultatives. Mhm. ndaw yeeg mag ñi ñu discuter ci gox bi lan lañ ci bëgg a def. merci beaucoup Moussa Balla Fofana na euh, maître Ousmane Seye. Euh, Benno Bokk Yaakaar def nañu benn sortie tout à l'heure ñoom li ñu wax mooy ñoom ñoo gagné ni ñu expliqué ngañaay li euh, mooy bu ñu sukkandikoo ci nombre de collectivités locales yi ñu doon xëccoo li ci ëpp ñoom ñoo ko gagné ndax loolu mën nañu koo jàpp ci ñoo xam ne dañ doon xëccoo capital bi ñu perte ko Ziguinchor ñu perte ko ak liñ ci wax ak liñ ci def lépp. merci Pape balaa may tontu ci sa question boobu euh, dama bëgg ndokkeel encore réew mi. Mm-hmm. Sénégal euh, dafa am ndam ci wote yi ndax ni mu tëddee avant wote yi lu nekk dégg nañ fi nee nañ dañuy sàcc nee nañ fichier bi baaxul am na sax benn responsable politique bu ne je m'en fiche du fichier ne Sénégal ni ñuy watee man dam mos a wax ne Sénégal kenn mënatul sàcc wote parce que honnête laa nekkoon xam naa ci dara waxaatoon naa ko avant élection yi mm-hmm. je crois que ñooñu nag di responsable politique ñi waxoo ne dañu commencé di sàcc di def ay transfert d'électeurs ak yooyu te dara amu ci war nañ baalu askan wi wax nañ dañoo juum Sénégal am na ndam ñëpp xam nañ ne c'est un pays démocratique fichier électoral nag damay yaakaar ne fi mu nekk nii wax jooju c'est clos. ah loolu moom kenn wax jàpp nañ ni c'est clos. vraiment parce que dégguloo kenn bu ñu tànqalati. di wax naan fichier bi baax na ak baaxul fichier bu baax la. loolu wote bi wane na ko. suñu système électoral confirmer que fichier bi baax na amul benn problème. fichier bi déjà dañ ko jox avec beaucoup de retard je pense que ne loolu kenn du ko weddi. ba noppi baax na baaxul lay tontu foofu lay que. waaw pour ba. tripatouiller fichier bi amul impact bu bëri que prochaine élection législative duñ ko def. on sera là. on sera à du ngeen may dara. non je vous en non non entre parenthèse la woon. bàyyi ko égale si non non alerte. chaque fois dañuy reeteet. maître ba ñu rey jaan ji mooy ñu am jàmm xam nga. c'était juste rek pour am avenir moo tax xam nga nit buy wax. li muy wax daf ci indi ay firnde. ok taxaw nañ dañ primité dañ dañ tripoté fichier bi. ci amoo benn firnde. amoo ci benn preuve lu dul ndëxal xal yi nit ñi loolu lañ war a baax te nit ñi xam nañ ne ci lool ngeen dëkk. fichier bi du leen ko jox ngeen koy trimbalé fichier bi dafa am ay données personnelles dafa am condition yoo xam ne moom lañ koy consulter. à chaque fois ku bugg consulter fichier bi boo demee ministre de l' intérieur di fiche dina mais kenn du ko yóbbu sa kër di ci def lu la neex du leen ko jox loolu ba abadan du ngeen ko am bu ngeen bëggee watee nii ngeen wate noonu parce que dafa am ay conditions yu wate on va continuer à vous battre malgré ça. maa ngi ciy ñëw maa ngi ciy ñëw soo bëggee defee ni débat bi après non c'est que de réagir on essaie de faire ça en bon gentleman loolu waxu fichier dafa fi war a jeex waxi fraude dafa war a jeex dégg naa ay responsable politique sa responsable politique mu taxaw Ziguinchor te dafa am ay transfert d'électeurs yooyu dañu juum d'abord électeur benn yoon la am droit fichier bindu bi boo bindee ci fichier bi dëkk par exemple Kaolack ñu affecté la Dakar bu la neexee nga def modification changer fi ngay voter def ko Dakar boo ñëwee di wote si Dakar am nga ci droit kenn amul droit taxaw daa di ne kii am carte d'électeur ci carte bi mu am lieu de vote am bureau de vote nga ne doo fi vote c'est pas possible loolu aussi boo ko defee ñàkk a xam la ignorance la wala bëgg a tapas la loolu aussi dañ ko war a dépasser dem nañ ci auditeurs yi bi ñuy lambaaj fichier bi opposition baa nga fa ñu nga fa woon. xool nañ ne affaire nga ci li nga bëgg a wax mën nga ma tontu sama question. léegi nag li ngeen jàpp ni mooy victoire. léegi nag xam fan ngeen ko teg. Benno Bokk Yaakaar. waaw mun nañ wax ne moo am ndam ci élection. li Moustapha wax dëgg la Dakar pertuñu ko parce que géré wuñ ko Ziguinchor. mais gagné wuñ ko gagné wuñ ko. mais gagné wuñ dañ ko bëggoon reconquérir dañ ko bëggoon reconquérir. mais nekk woon ci suñu loxo bañ perte ko damay bañ ngeen joué ah ah. lu nekkul ci sa loxo mënoo ko perte. lu nekkul ci sa loxo xam nga aussi Moussa daf leen interpellé. non non non Moussa baal ma baal ma rek dinaa ñëw ci yow après rek. Sénégal yi ñuy seetaan. waaw. ñi ñi ñi opposition bi yoroon Dakar ñoo ko gardé. d'accord d'accord c'est bon Moussa non non mais loolu c'est clair baal baal ma may ma Moustapha damay ñëwaat ci yow de ça. d'accord c'est important maître Ousmane Seye. opposition bi ñoo doon gérer Dakar depuis 2014. ñu bëggoon ko foqal ci seen loxo. antuwul ñu garde waat opposition bi garde waat kon ñun pertuñ Dakar dañ ko bëggoon nangu mënuñ ko nangu effectivement ñu ngi leen sax félicité. mais ñoom ñoo gañ a Dakar yaakaar na di ngeen ko liggéey Dakar parce que pour ñëpp la. incha allah euh, Ziguinchor pertuñu ko yore wuñ ko woon mu ngi woon ci loxo Balde boobu nekkuloon benn boo ko yaakaar en 2014 bu woon nañ ko gañe gañe wuñ ko boo xoolee nag résultat yi globalement ci 14 régions Sénégal ñun ñoo am ndam ci dix yi sur 46 départements ci 40 départements yi ñoo ci am ndam. Ah. sur 603 collectivités. mais mais ci dix yooyu da ngeen ci boole Thiès alors que Thiès dafa nekk ci ballottage fi ñuy wax. non boolewuma ko ci parce que. non si bu dee 4 Thiès xamaguma waaw vraiment résultat yi kan moo gagné entre Babacar Diop ak euh, Yankoba. Hmm. xamaguma ci ville bi quoi. ci commune yi aussi. je je crois que am na ay communes yoo xam ne benn boo ko kan boo ko gagné am na yoo xam ne je crois que sur ces cinq communes. Mhm. trois yi ñoo ko gagné. Mhm. voilà day opposition bi ko gagné. voilà la ville donc foofu aussi am nañ fan ndam. sur les collectivités territoriales boo boolee collectivités yi yi ak département yi. ça presque six cent trois collectivités territoriales. si sur les six cent trois collectivités territoriales benn boo ko gagné na plus de cinq cent collectivités territoriales donc au niveau national vraiment. benn ak dafa am ndam Moustapha mi mu lay wax léegi ne la en 2014 benn bokkaar benn commune la gagné woon Ndakaaru mu Yoff te ren kañ xanaa dinañ ah, dinañ am yaa ngi yaa ngi yaa ngi méngale 2003 xaw ma ak. 2014 plutôt yaa ngi méngale 2014. ak 2021 ak 2021. ñoo commune euh, euh, yi ñuy gagné Dakar mooy ëpp commune yi ñu gagné woon mu amoon benn effet boo xam ne bokk euh, ñëpp àndoon na moom presque. mais benn commune lañ gañe woon Dakar mooy commune Yoff mu sept ans après ñu am nañ au moins trois à quatre communes au niveau de Dakar donc vraiment Benno Bokk Yaakaar moom moo gañe élection yi léegi nag ñu ngi félicité ñi nga xam ne Sénégal c'est des démocrates may nañ leen ñuy jël ay communes jiite ko ñu ngi ubbi suñ bët di xool di seet ndax la lañ fa defoon ñun ñoom lañ ko fa def. d'accord xam naa ni ñoom itam dinañ xool la ngeen fa defoon. ndax na ngeen ko defee woon noonu la. ba tey loolu c'est important. muy muy loolu aussi je pense que noonu lay demee. Ah, ah, ah, alors nit ku conscient dina def audit. balaa alors donc euh, Moustapha. yaa ngi bëgg a leeral mbir moomu mais yey ma ci man mënut a yomb. xam naa ni sax du lool nga ciy sàkk non non waaw d'accord mais xam naa ni non non non laay expliquer nii parce que parce que par exemple moom dafa c'est-à-dire Moussa leen interpellé ci ñu vraiment ñu nekk ay gentleman parce que man pour man ci élection xëccoo bu fekkente ni am na fa soo gañewul perte nga ak lu mën a demee voilà d'accord léegi léegi ci baal ma rek ma ñëw ci ma ñëw ci laaj bi ah s'il vous plaît laaj bi nga xam ne moom laa bëgg a taxaw mooy yow lan nga sabab lan nga jàpp ni vraiment moo sabab lu ni mel parce que loolu aussi dama bëgg mu. no xam nga globalement taxaw seetlu ko waaw globalement Pape Ngagne boo xoolee. quand même la ville de Dakar. ok pratiquement vingt ans. Mhm. pour opposition ko c' loolu rek mooy mooy non non yow tam. ok ok baal ma waaw. la même chose avec la ville de Ziguinchor. d' accord Abdoulaye Wade pour mu jëlee ko ci Robert Sagna daa wax lu set wecc. il a fallu vraiment faire des mesures du pied pour que Baldé en tant que responsable du parti démocratique sénégalais gagné Ziguinchor bi ma bi bi PDS daanoog léegi pour nga jëlee nangu Ziguinchor ci opposition c' est la croix et la bannière. c' est comme ça c' est des c' est des qui sont comme ça ça ne veut pas dire que yi ngay moom euh, bokk na yi ngay wax nekkuma boobu damay def des constatations. que en fait c'est des villes qui sont très par rapport au, au, pouvoir kooku moom ku seetlu Dakar ku ne man ko xam parce que depuis 1988 Dakar résiste fortement à, à, à, au, au pouvoir central maintenant yemul foofu pour man jàpp naa ne li tax euh, maanaam euh, pouvoir bi mënut a gagné Ndakaaru gagné wu ko 2014 mënu ko gagné wu ko 2000 2022 weesu na rek Ndakaaru nekk une ville aussi jàpp naa ne ñu fi dëkk. muy les populations rawatina ci les jeunes am na attente yu ñuy xaar ci réew ci ci ci état bi te gis te gisuñ seen bopp. Mhm. man loolu bo loolu laa gëm c' est pourquoi ma jàpp ne xëy na 2014. ak léegi bi ñu ñàkkee Dakar. léegi problème investiture amu ci problème mu. ko ko xëy na mën na ci am. mais xam nga loolu du ma parce que man ça ne intéresse pas. waaw mais non non non dañ dañ ko jàngat rek. intéressé wu man xam nga li ma jàpp mooy. ni Macky Sall investir pour man na nanguwul loolu. mun loo jékki jekki nekk Ndakaaru di wutal waa Daaru dara ma wala waa Taïf kan mooy nekk seen candidat maire loolu démocratie nanguwu ko. mieux mais d'accord même bu fekkente ne def na loolu ne diw yow yaay nekk candidat mais waroon naa wut des yoo xam ne ñi ki mu tànn mais du du tànn ñu ko neex waaye yow dañu lay woo ñu ne Balla yow yaay candidat mettons euh, euh, Ndiarène. Balla dem làq ci biroom wut ay nit ñoo xam ne am nañoo ak moom mais ñi ñi ñi mu dugalu ci ci ci liste bi mais sëñ bi duñ ko voté. je crois que loolu bokk na ci yéen mais loolu seen affaire la. parce que man personnellement jàpp naa ne li en tout yi am Dakar ak Guédiawaye ak Ziguinchor même ak Kaolack jàpp naa ne c'est un message que que ñoom ñu war a ñu war a ñu war a gëstu parce que pour man c'est une très bonne chose pour la démocratie sénégalaise. parce que nag ah lim ak ni mu ak léegi ni muy doxalee rawatina ci ñim àndaloon je crois lu mel ni pour mu dal ko je a été réélu pratiquement ñu bare bari ne bokk nañ ci ñi ko joxoon pouvoir bi wala ak seen baat. voilà ah, ma ngi sama bopp ba léegi yooyu garawul man li am solo rek mooy Ndakaaru quand même c'est la capitale du Sénégal Ndakaaru c'est 25 pour cent de la le département qui englobe le plus de jeunes donc Ndakaaru bu ay problème amee day déteindre sur le pays c'est pourquoi pour man au lieu ñuy werante li mu war def mooy les maires qui ont gagné rawatina ci Dakar ñu jàppale leen ba ñu mën a def li maire war a def pour améliorer les conditions de vie des populations rawatina ci wàllu sécurité ci wàllu yoon ak ci wàllu leeral dëkk leeral dëkk alors Moussa dégg nga li maître Ousmane Seye wax ci six cent et quelques localités 500 yi gagné nañ ko kon yéen mën ngeen ndax mën nga ànd ci ne perte ngeen élection locale yi yéen waa coalition Yewwi Askan Wi. je pense que ne di wax naan Yewwi Askan Wi dafa perte élection yi moom c'est xam nga mag bu taxawee gis ab naaj ne gisu ko kooku moom mënoo si dara. Mm-hmm. du ma attardé wu ci loolu parce que nit ñi setaan Euh, damay dégg suñu. Ah, doyen nag ay chiffres la aussi. waaw mais maa ngi ñëw ko dafa wax ay dong. dégg doyen naan dama bëgg sénégalais yi comprendre sénégalais yi am nañ xel am nañ bët soxlawuñu kenn pour comprendre la réalité. non non non ils sont. non sénégalais yi ay njaacaar lañ je pense que nit ki. nit ki même rek ma yëgal. parce que man dinaa ci dugg dama ci dama ciy dugg ba xuus ci. dugg ba xuus ci dama ciy parce que dafa am lu ma wunte dinaa ko wax sénégalais sénégalais dafa am koom dañuy dund koom-koomu réew mi di dund problème santé réew mi di dund problème éducation de réew mi di dugg problème ndoxu réew mi di dugg problème di dund problème électricité chaque politique publique bu président de république jël dañ koy dund donc ñoom ñoo la gën a xam téeméeri yoon ndax mbir mi dox na wala doxul ah donc loolu dama koy préciser donc quand je que ne sénégalais yi ay njaacaar lañ ñu ngi bët ñoo la gën a xam seen mille francs par par li ma bëgg a wax mooy san sànq dama dégg. Euh, mais sama question nag. sa question maa ngi ci ñëw. xam nga xam nga <laughs> ñi nekk lycée dañu suivre xam naa dinañ ree parce que xam nañ ne euh, nit dina am dix matières. am matière bu am coefficient 6 wala set am matière bu am coefficient 1 boo amee nag coefficient 1 nga am 20. tëpp nag ki nga xam ne moom coefficient 6 dafa ñëw dagg fa benn 17 nga taxaw naan maa ko mën. continuer nañu continuer ñoom di di di di di bàkku ci 600 yi ñun xam nañ ce que ça veut dire les chiffres kenn dofu fi xam nañ mais xam nga man man ngay lépp mais ah, évident xam nga lépp moom bu safee moom réaction day am <laughs> sànq aussi wax nga ne euh, yaa ma dama ñëw di la commencer bête man j'ai beaucoup de respect pour les gens ah mais nag ñëw ma fi pour complaindre à qui que ce soit ñëw fi pour offenser qui que ce soit dama ñëw pour défendre une vision politique def ko de manière responsable jéemuma offenser kenn mais je ne cherche à faire plaisir à personne dama dégg dans l'analyse de doyen mu focaliser ci Dakar ak Ziguinchor. ah mais c'est important. ban oui je n'ai pas encore dit que c'était pas important. justement dama bëgg a def def une conclusion. alors que mu ne Dakar dañu rebelle. dañu dëgër bopp sax mooy terme bi ñu employé. hostile hostile. Mhm. alors que ne Pape la réalité elle est tout autre. gis nga ces capitales ces villes dañuy dañu am des demandes sociales Dakar demande du transport Dakar dafa demande logement Dakar dafa demande sécurité non non non non fu ma bëgg a jëm mooy quand tu dis que ne Dakar dafa dëgër bopp c'est comme si dañu rebelle pour rebelle non dafa waaw maa ko dégg maa ko maa ko dégg noonu ah, xam nga déjà déjà ils sont deux di man je suis seul donc si laissez-moi juste laissez-moi juste parler je veux juste je veux juste qu'on me laisse continuer. non je veux juste je veux je demande juste. non di nga wax grand baal ma rek. Moustapha baal ma rek nga bàyyi ko mu terminer. Ah, c'est c'est pas compliqué. je décrire les conditions dans lesquelles les Dakarois vivent. et qui peuvent expliquer le fait c'est ça donc loolu donc loolu du dëgër bopp xam nga xale bi dëgër que mhm. les mots ont leur sens. quand tu dis quelqu'un dafa dëgër bopp. c'est dire Dakar est rebelle. non dëgër bopp bi da nga wax ma dégg ko dugg sama nopp yi. mais nag dafa am les mots ont sens et je les

baal ma rek s'il vous plaît nga may ko mu eggale. merci beaucoup okay, merci doyen merci okay. merci doyen Moustapha. may donc ce que je disais mooy. Euh, bu ñu bu ñu analyser mbir mi en tant que juste ville yu rebelle wala Casamance rebelle des choses comme ça non nañ ko analyser par rapport à la. Casamance rebelle c'est pas de la ville de Ziguinchor. ne non mais c'est des, mots qu'il a employés. non non Casamance rebelle que ce qui est dangereux dans ce pays c'est que les gens utilisent des mots avec beaucoup de légèreté. quand ils le font avec beaucoup de politique politicienne et quand tu pointes du doigt là ils sautent waxuma mais non les mots ont le sens. les mots ont le sens et quand je choisis mes mots je les choisis très bien quand tu choisis un mot plus. mais doyen respecté naa la quoi su ma sañoon su ma sañoon mais xam xam nga xam nga mag xam nga mag mag non loolu du waxum foofu xam wax dëgg la xam nga mag moom mënoo ko mënoo koo gën a yaru ko mënoo koo yar da gën a yaru rek ñaan ma ko ngir ngir yàlla may ma rek ma mën a eggali li wax xam nga li ma bëgg wax rek mooy ces villes vivent des réalités spécifiques dañu am ay exigences par exemple boo demee Ziguinchor tey malgré ressources yi ñu am yëpp tey jii pour ñu am économie bu dëgër bu générer ay emploi c'est tout un problème boo ñëwee Dakar condition de vie Dakar tey jii nit ñi bu ñu la waxee li ñuy fay loyer transport Pape nga Ndiaye tey jii famille yi li gën a am solo seen seen adduna mooy seen jàngu doom tey kan moo fi dul fay pour jàng doom réew mu nga xam ne c'est un pays pauvre ndox da nga koy fay éducation da nga koy fay électricité ça coûte cher loyer ça coûte cher ba noppi ñu am benn développement urbain à Dakar benn croissance. mais ci Afrique dafa am réew boo ko gisul loolu. par exemple ci Afrique aujourd'hui tout non non ci lan am ko gisul foo xam ne par exemple doo fay jàng doo fay ndox doo fay. non les études ont la la foofu laa doon ñëw mais bëggut a nangu Dakar am benn leadership def ay emprunt def seen plan d' aménagement je me rappelle quand j' étais nommé conseiller technique du gouvernement du Sénégal en je me rappelle du plan d' aménagement du territoire de Khalifa Sall avait, avait présenté une un maire qui avait de l'ambition et je pense que tous les Sénégalais devraient être fiers de ça donc analyse bi li mu foofu laa bëggoon ñëw mënuñu yem ci deux villes consommation du weesu pour cent du euh. donc xam nga bu ñu buggee bu ñu bëggee comprendre lu tax population yi réagir au-delà maintenant des des phénomènes yëpp nañu nañu analyser. voilà dogguma la. Mhm. c'est-à-dire man très sincèrement ma conviction. Mhm. c'est qu'au Sénégal on n'est pas encore dans la décentralisation. Ah non on n'est pas euh, doyen xam nga tax wax nga dëgg. on n'est pas dans la décentralisation. xam nga gis nga bu budget décentralisation ak budget. ñu jël quatre catégories ñu jël les pays de l'OCDE. ñoom près de 50 pour cent du budget des collectivités locales yi ñoo koy gérer les pays émergents sont à 35 a fait la moyenne ci pays yi nga xam ne dañu nangu dem décentralisation on est autour de 25 pour cent Afrique am na pays yu dem 10 pour cent ñun on est toujours entre 2 3 4 loolu te xoolal réew mi ni mu décentralisation mooy nit ki bu génnee këram est-ce que am na trottoir bu ñu aménagé. est-ce que am nga abri bus pour say doom est-ce que am nga bus est-ce que am nga police municipale booy gis bi assurer sa sécurité est-ce que politique logement cadre de vie loolu mooy le service dama koy faral di wax et dans livre on en parle la décentralisation c'est quand l'État est présent dans le quartier mais quand le citoyen aussi est présent à l'intérieur de l'État loolu la décentralisation dañ ko néewal doole dañ ko néewal doole trop loolu nag ak aussi nag euh, réalité économique yi tension trésorière biñ biñ ci dugg réalité économique bu Sénégal metti coronavirus bi ñëw si ça ça aussi il faut le dire ak événement mars nga xam ne c'est quelque chose bu nga xam ne ñu gis de l'histoire du Sénégal hors contexte électoral soulèvement am et ça et loolu nit ñi sociologue yi war nañ ci gën a xool bu baax donc si tout ça pris ensemble mu avec des proportions différentes bien évidemment mooy expliquer aujourd'hui li tax ñun on a analysé la la situation on a fait une offre politique basée sur des valeurs xam-xam dëgg liggéey yërmande proposé ko Sénégalais yi Sénégalais yi fekk ñu ci ñu ngi ñaan yàlla ñu continuer liggéey boobu. ba ba duñu tas duñu tas merci beaucoup alors maître. dégg nga li mu wax moom argumenté na vraiment li waral seen défaite ñoom seen victoire li mu wax aussi xel mën na ko nangu. parce que boo indee par exemple six cent et quelques euh, collectivités locales nga ni gagné nga cinq cent yi génne nga ci dakaar génne nga ci Thiès. génn nga ci Kaolack génn nga ci Ziguinchor mais loolu boo ko xoolaatee war nga xam ne aussi sa ngañaay loolu war nga war nga war nga war nga ko mën a xoolaat bu baax dëgg nga euh, li mu la ci jox ci ci ci réponse est-ce que loolu itam mën na la convaincre. oui damay confirmer effectivement ne Dakar capitale la dafa dëgër bopp c'est une ville rebelle loolu presque capitale yëpp noonu lañu mel Ziguinchor a une certaine histoire moom dafay confirmer difficulté yi nga xam ne. dañu concentré wu au niveau des capitales loolu la fi wax problème mu eau problème mu jàng problème mu mobilité loolu il faut ñu gërëm ci président Macky Sall d' parce que mu ngi réglé na problème mu électricité bi réglé na problème mobilité bi avec BRT avec euh, TER et ah, tout ça mi ngi koy réglé mi ngi koy réglé effectivement parce que nous en sommes conscients waaw donc difficulté yooyu yëpp bu ñëwee ci bopp Dakar pour pouvoir bi ñëw parce que pouvoir bi c' est le responsable moo war a régler les bu xawee fayru tuuti ci problème dafay difficile pour mu maintenir capital looloo tax opposition gañe capital dafa yomb looloo tax ñu mu gañ capital yi mais nan nangu ne. dafa yomb fépp dafa yomb opposition nangu capital la preuve Macky Sall bi muy gagné au premier tour en 2019 mais Dakar. n'était pas avec lui Thiès n'était pas avec lui Ziguinchor on est dans la même situation te moom moo élection yi au premier tour les élections locales n'ont rien à avec les élections nationales loolu aussi il faut ñu xam ko programme bi mu fi wax nii du programme local programme national il faut qu'on fasse la différence moi je sais faire. mais ci décentralisation la wax. ci décentralisation. décentralisation euh, ñun am nañ politique décentralisation. c'est pas une décentralisation peut-être totale. Mhm. parce que nous sommes état bi il faut muy suré mu ngi wax ay emprunt obligé emprunt obligatoire boo koy def ku lay garantir. obligataire ah. obligataire boo koy def ku lay garantir état bi. état bu état bi étudier sa dossier xam ne yow li ngay leb munoo ko fay te boo ko fayul moom moo koy fay dina la ko autoriser. Moussa Moussa loolu mën nga si wax tuuti rek s'il vous plaît. mën naa si wax état mooy garantir. non may ma mën naa ko wax rek. te plaît baal ma te plaît parce que bi emprunt bi di ko Khalifa Sall di monter. waaw suis un financier xam naa li may wax. ñu koy monter ah di ko yóbbu di ko yóbbu collectivité ah. locale j'étais le conseiller technique. waaw Cheikh Bamba Dièye nekk ministre on a étudié tout y avait aucun enjeu tous les garanties étaient là. les organismes étaient là pour assurer état boobu Macky Sall mi ngi door a gagné ñëw ne on a une belle signature donc l' état garantissait il a aucun argument technique c'était de ko ma bëgg wax ok emprunt obligataire boo koy def mhm. état bi moo lay garantie mhm. parce que boo fekkee da nga leb xaalis fayoo ko état bi mooy fay mhm. donc état am na droit ne la li nga bëgg leb amoo assez de garantie. pour ma pour ma permettre la ko man loolu condition yooyu loolu la wax loolu moo am. xaw ma nag ñoom lu ñu seen détail ak man. lu ma euh, mu say wax nii quand même maa j'étais municipal à la ville de Dakar euh, effectivement Khalifa avait de grandes ambitions. Ah. pour non seulement def lu baax mais aussi pour am ay moyens yu mu ko def gëwuma ne réponse bi gouvernement bi joxe woon à l'époque que nekk man. personnellement, je n'étais parce que Ginao l'État, moi, il Je crois que garanti l'État, euh, pardon, ville de Dakar, moi, j'ai des moyens, je ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. xam nga sànq bàyyi ngeen dama la wax ne la. man doo mën a Sénégal. mais maître moo yor cadre bi. man maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga. ok dañuy dem ci constitution bu Sénégal. bi mhm. wax ne les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Baye Ngaye 99 pour cent des conseillers municipaux ay politiciens nga fay fekk 99 pour cent des conseillers départementaux ay politiciens nga fay fekk or man li ma gëm xëy na peut-être même euh, y a d'autres pays gis nga pour que mu a nekk véritablement ma pouvoir décentralisé dafa war a jóge ci suuf jëm ci kaw mieux waruñoo yem sax tey ci collectivité locale bi compétence yi ko transfert état bi transfert rek ci la war a yem pour man war nañoo donner de nouvelles compétences par rapport aux moyens dont tu disposes. Si je me donne exemple, la mairie du plateau, qui a un, une mairie quand même qui a des moyens. Mm -hmm. Mais ce que ci les compétences transférées pratiquement les moyens yi doon yi mu am du ko mën a utiliser kon encore une fois c'est pourquoi moi je je j'ai pas été content débat bi nga xam ne moo nekkoon ci élections yi parce que li ñu war a poser c'est le débat de la décentralisation. parce que pour le salut du Sénégal. d'accord passe une bonne décentralisation. merci beaucoup maître population yi ñu jox voilà alors kii euh, li muy wax noonu ci affaire décentralisation effectivement moo war a permettre population yi di participer à la vie publique. Mhm. président def na le principe de la territorialisation des politiques publiques. boo xoolee code des collectivités territoriales ak l'acte 3 de la décentralisation war nañ am lu ñuy wax les conseils de quartier li ñu mënoon wax mooy ñu jël le décret boo xam ne mooy organiser ak di faire fonctionner les conseil de quartier ce qui permettra aux populations dans les communes de participer à la gestion de leur municipalité am na aussi les conseil de ville moo tax d'ailleurs Abdoulaye Diouf Sarr candidat Dakar premier point programme am moo doon la conférence territoriale mooy en dehors des élus chaque année avant ñu voter budget bi mu convoquer les non élus yi nekk ci Dakar yëpp pour ñu débattre du budget bu ñu exécuter budget bi mu ñëw rendre compte loolu c'est possible parce que aussi aussi euh, li ñu mun a wax mooy maire aussi il faut que ñu maitriser le code des collectivités territoriales ak l'acte 3 de la décentralisation jël ay initiative pour loolu ñu mettre ko ñu ba pare li ñuy wax ci xaalis effectivement l'État waaw par le fond des concours ak yooyu dafay ñëw di di di di di di alimenter le budget des collectivités territoriales mais les maires ont d'autres possibilités okay. par l'emprunt par l'intercommunalité par les financement innovants di uti di jëgaani mu ngi mel ne ku sa dépense doyul nga dem lebi dem uti waat dana uti ay pexe. d'accord def daal merci beaucoup maître maître merci musa Balma dinaa ñëw si yow damay ñëw si Moustapha rek tuuti alors euh, Moustapha. ya yaakaar nga nag ngañaay lii nga xam ni Yewwi am na ko dina yomb ci seen diggante ak état parce que ku ne gis na fi mairie de Dakar jaar ak état. loolu ndax dina yomb Ziguinchor Ousmane Sonko ak état. je l'ai vécu Barthélémy Diaz ak état. je l'ai vécu en tant ndax jàpp nga ni dina du yomb gis nga parce que nous quand on était venu mais du yomb laa jëkk a wax parce que ñun quand on était venu on était venu avec notre projet beaucoup de projets mais à la limite lu ci bari yu yàqu c' était d' avec le pouvoir de le pouvoir du du mais ensuite avec le avec euh, le de 2012 à 2014 bari na ay tënk rëq-rëq yu ñu am yoo xam ne li ko indi mooy euh, maanaam ñàkk jafe-jafe yi ñu am diggante état bi ak commune Dakar maintenant Baye Ngagne moi je crois que le Sénégal quand même c'est une démocratie Sénégal ki constitution lay tënk ak i loi Sénégal moo constitution moo wax ne population yi moo moo moo daganal décentralisation soo ñëwee code des collectivités territoriales mu gën ko préciser ma jàpp ne rapport yi état war a doxalee diggante ak commune yi état bi warul xool ki nga xam ne mooy maire wala nekkul maire parce qu'en réalité les compétences ne sont maire mais au conseil municipal. mais conseil municipal bi ay Sénégalais fa nekk. absolument cest gis nga bàyyi nga ñu xar nañu weesu mbootee c'est-à-dire ñun mënuñu fi nekk. c'est-à-dire lu ne ñu te conseil municipal boobu bari na ci ñoo xam ne dañu ànd ak euh, état. loolu si c'est important xam nga même une mairie une mairie c'est un démembrement de l'état. xam nga une mairie mi ngi mel ne sama loxo bi wala loxo ba bàll ba sax ci sama suñu jëmm la bokk. cest à état bu fekkee les maires travaillent les maires ont des ont pour liggéey ni ñu war a liggéey à la limite dañuy yombalal état. li nga xam ne moom la war a def c'est pourquoi d'ailleurs une bonne décentralisation comme moom li tubaab yi tuddee une la subsidiarité ascendante a mbir mi di jóge ci suuf jëm ci kaw su ko defee par exemple da ngay ñëw moo ci doon un quartier kenn ko ne ci ñun am na quartier bu mu dëkk boo xam ne jàpp nga ne la quartier bi man war nañ ko war na ko mën a def bañ caa xaar meer la nga xam ne commune mën na ko mu mën koo def bañ caa xaar département li département man mu bañ caa xaar ville je crois que c'est vers ça que ñu war doole maintenant xam nga bàyyi ngeen li may bañ mooy maanaam mooy mooy ñun ñi ànd ak ñun am nañoo ak ñun ñu nu contre contre nañu gis nga maire boo xam ne xañ nga ko mu def liggéeyam defoo ko maire bi defoo ko conseil municipal population yi dëkk ci commune boobu loolu mooy dëgg alors Moussa sa leader Ousmane Sonko dafa wax ni moom euh, reconnaître wul président Macky Sall comme président ba sax du ko wax président loolu bu fekkente ni dafa continuer ci dynamique boobu. Mhm. est-ce que dina yomb moom démembrement de l'État comme maire de Ziguinchor pour ay réalisation ak engagement ak Ziguinchor mu mën ko mën ko matale. Euh, da balaa may tontu sa laaj am na solo trop euh, dama bëgg li li li li li sëñ bi doon wax dafa am solo loolu la ñuy woowee principe subsidiarité. bu ñu amee par exemple quinze compétences waaw sëñ Moustapha Diakhaté jéggalu ah non ah waaye sa kilifa nga rek dañ koy dañ lay dañ lay ci loolu donc bu ñu ne principe subsidiarité région dafa am lu mu war a yor département yor dara commune yor loolu mooy tax véritablement ñu partager liggéey bi ku nekk xam fi nga yem te loolu dafa am solo ci décentralisation maintenant li nga wax c'est vrai que Ousmane Sonko bi ñu génnee ci élection yi. wax na carrément que ne président Macky Sall ni mu gagné ni mu gagné élection yi gagné bi dafa takk suuf. Mhm. mais nag on le reconnaît comme président de la république d' ailleurs coow li bi mu amee. non non daf ni moom du ko sax wax président. de la république non bon loolu xam nga entre man xam naa fi nga yóbbu bi nga bëgg a wax. mooy est ñun tey gérer collectivité dina yomb ci ñun. loolu question bi loolu mooy xam naa mooy mooy juqu question bi moo ci am gën am solo du yomb. mais nag difficile est le chemin àdduna lu yomb amul donc ñun ñoo def le choix euh, proposer quelque chose bu nga xam ne sénégalais yi fekk fekk nañu ci dinañ travailler ak sénégalais yi conseil bu nekk ñu toog waxtaan discuter proposer leen lu am solo jublu ci liggéey bi bu ñu ci état fekkee ñu sant ko ne ko def nga li la war askan wi nga ko defal bu ñu ci fekkul ñu jël askan wi te aussi en en témoin ne leen kat. mais loolu dina yomb nag de. ah mënuñu def. non non non non am responsabilité non responsabilité passé wul. Mhm. par exemple ce mhm. nekk maire bu Ziguinchor. Mhm. taxaw ni du ko reconnaître du ko wax président ba pare moom loolu. aussi am na ci responsabilité. non Pape xam nga bu ñu bëggee waxtaan bi nekk sur un débat très technique. waaw mais wax bi mais non wax bi moom technique li ma lay wax lu dama ne diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko. ñagas na te loolu dañ ko assumer parce que Macky Sall mooy doxalee ni muy doxalee amul amul orma ci benn opposition li muy def nit ñi nit ñi di ko gis muy benn violence bu nga xam ne tegu ko fenn ñun tam dinañ ko wan non dinañ ko wan ne ko kat réew mi réew mi réew mi loolu beneen loolu beneen niveau la beneen niveau damay njëkk a wax rek li xew parce que xam nga wax ji buñ bëggee wax ji leer mooy li fi jot a jàll ak lii ñëw li fi jot a jàll bataille politique la ñu ñu nekk ci dëkk bi ñu mel ni ñun c'est on est des citoyens de seconde zone bés bu ne ñu def ñu lu ñu war def violence bu nga xam ne nit ñi dañu teg seen bët Macky Sall buy def loolu kat dinañ jàkkaarloo ne ko sëñ bi kat président nga wekk nañ la waaye nag. Ah. sénégalais nga ngay sénégalais. ah loolu moom waxuma ko. donc ma wax mooy ne. li ma wax mooy reconnaître ma ko. on oh, non waxuñu ne non ça ça franchement ça non. après les élections je pense que déclaration bi ñu def mi ngi fi ñëpp mën nañ ko lire wax nañ ne élections yi ñun ni mu demee président Macky Sall dafa sàcc élections yi par contre on le reconnaît comme président de la République d'ailleurs yi bi li bëre président Ousmane Sonko bokk na ci jigéen ne booy dellu leen ñu ñu ñu régler parce que kenn mënu fi ñun ñaanuñ yàlla loolu am fi mhm. donc loolu mooy li ew les faits sont sacrés restons sur les faits maintenant par rapport au nouveau contexte on est dans un cadre républicain la décentralisation a fait l'objet d'un benn vote à l'Assemblée nationale texte yi leer na xam nañ ne askan wee ko moom askan wi la ñuy jox éducation jox leen santé jox leen assainissement bu bu baax mooy propreté parce que assainissement sax bi am amaguñ ko ba léegi comme comme compétence mais surtout propreté nit ñi ñu ngi koy kaas lu bëri ak éducation service yooyu yëpp tey jii sénégalais dañ ko soxla ak foo mënti bokk donc je pense nous faisons un appel au président de mm-hmm. ne ko askan wi moo ñu dénk moo ñu yónni yàkkamti ñu ngir yàlla bu ñu kenn galgal nañ ñu bàyyi rek ñu liggéey parce que ñun loolu la ñu woote c'est pas pour rien le programme de Ousmane Sonko tudd Burok muy le travail ci loolu la ñu la ñu woo dama dégg sànq élément yu am solo le projet BRT man bokk na ci projet yi nga xam ne je le salue ce qu'on appelle les bus rapid transit mooy bus yi nga xam ne fi ñuy jaar kenn du fa jaar toutes les grandes capitales lañ ko am par contre terre bi il faut euh, yi rek intérêts yi Macky Sall waxul Sénégalais il va payer près de

non <laughs> xam nga. non xam nga. Euh, man bu ma bu ma yeggalee rek ree ji arrêté. xam nga Abdourahmane Diouf sax <laughs> dafa dafa secoué le cocotier ba am na information yu bëri génn ba mu naan leen affermage ngeen signé. dafa baax sax parce que affermage xam nga luy affermage mooy yow Pape Ngagne da ngay tabax sa immeuble man ma ñëw exploité j'exploite à mes risques et à bu ma gañee gañe naa mais ah, war naa la jox deux montants yu importants le remboursement de ton investissement bu noppi ma jox la benn redevance benn surtaxe donc man je prends des mais euh, français yi dañoo muus dañu xam ne TER bi du def milliards sur sur 6 moo tax ñu leen xaalis bi ñun duñ ko laal xam nga lu ngeen ñu signé contrat de gestion de milliards sur 5 di ngeen ñu jox 40 milliards chaque année pour ñu gérer TER bi peu importe nag déficit bi ngay am gis nga boo calculer 300 milliards sur 5 ans muy 60 milliards par année rend mooy rentrée bi mooy potentiel maximum sur 115 000 nga génn ci milliards par année tu restes 20 rien qu'avec leur scénario de 115 000 personnes le le TR part avec un avec un déficit de de milliards loolu laa yóbbul Abdou il ne va pas rire. bu commencer gestion TR. Euh, na euh, ci problème mu TR beeg BRT xam nga ñun bi ñu fi nekkee. président <laughs> président Abdoulaye Wade daan wax euh, autoroute à péage. yow dañuy wax rek suñ bokk socialiste yi dañ daan wax naan c'est des éléphants blancs maanaam waxu caaxaan. tey ji yaakaar naa ne autoroute bi fa amul woon dina compliqué gis nga borom xam-xam yi dañu wax ne. ak mu jot Ndakaaru lu lu mu tuttu di embouteillage bi dina fi yàq ci alal loo ramat deux cent milliards mhm. soo ko multiplier par vingt cinq ans ça te donne soo ko diviser par njëgu terre bi mu wax léegi da ci mën a jënd ñeenti terre mhm. gis nga nag bàyyi ngañ Ndakaaru li fi cher du autoroute à du terre du BRT embouteillage yi moo cher mhm. ndax mooy yàq ci alal réew mi en vingt cinq ans muy alal ju dem Mali Poro kon man jàpp naa ne maintenant dafa am loo xam ne aussi dañ koy nangu mooy que gouvernement bi mais est-ce que TER ak BRT solution la ci. non da cee bokk non dama préciser BRT c'est un bon projet. mais man sama problème ak TER bi c'est ça que je suis contre le TER. c'est-à-dire que ne le ah, coût qu'on paye ak buñ ko monté woon ne neen ah, économie bi mën def man foofu laa jëm montage financier bi damay wax ah, toujours ne am réew boo ko yoree. Mhm. da nga yoral ak askan wi. Mhm. li ngay def ci seen alal ji ñu la jox. nga jëriñ ko wax ba mu leer nañ. Mhm. pour man li ma gis. Moi, j'étais député quand même. et je sais que bu énormément boo leen laajoon comment ça naka la affaire u bi demee wala naka la affaire terre bi BRT demee duñ ci xam or pour moi le le lieu par excellence où le gouvernement doit expliquer ce qu'il fait c'est l'Assemblée nationale. maintenant dama jàpp ne man d'accord naa ne terre baax na d'accord naa ne BRT baax na ni ma d'accordoon ci ne autoroute à baax na mais li gën mooy li nga xam da nga koy def ci turu réew nga di ko expliquer nit ñi. dama la jox sur le secteur. yow ñun on a commencé à construire terre bi. ñu jàpp ne dina mën a tëri dina war a àgg ci cinq six ans. Mhm. jàpp ne ginnaaw yoo xam nga ne dans six ans dañ la libéré terre bi. mais ci période boobu. war ngaa mën a former ñoo xam ne. ñoo la yoroon terre bi. loolu mooy transfert de compétence. ñoo la yoroon terre bi. te loolu itam war na mën a bokk ci projet pour mu solution. léegi on paye deux cent milliards pour solution bi. ay yu bari la gis nga non seulement BRT baax na. Mhm. TER baax na mais jàpp naa ne day laaj mu am li tubaab yi wax naan les voies perpendiculaires. Mhm. au TER et au au BRT mais en même temps ay am ay ay bus de yoo xam ne ñooy jëli nit ñi di leen yóbbu ci BRT bi di leen yóbbu ci TER bi au lieu que woto ba biir Dakar je crois que yu mel noonu. lu baax la maintenant lu mu baax baax baax bàyyi ngañ mhm. nit ki looy def ci alalam. da nga ko war a wax ne ko maa ngi ciy def nangam nii laa ko bëgg a defee. et pour mhm. moi y' a un information des Sénégalais par rapport à ces changements. juste qui ma yeggali foofu gis na man ce que baal ma euh, ce que je proposais. parce que mhm. nit ñi bay wax dañu naan dañuy critiquer critiquer ce que je proposerais mooy ce que l' Afrique du Sud a fait. Afrique du dafa dem ne Alstom yow miy jaay Sénégal man doo jaay da ñëw sama dëkk ñu créer une entreprise bu tudd entreprise bi sur vingt cinq ans il faut produire cinq cent trains l'Afrique du Sud met environ deux mille milliards il a près de emplois et trains yi produire c'est pour l'ensemble du territoire du ce boobu la proposer pour que bu nit ñi ba jàkkaar ne dañu critiquer pour critiquer c'est vrai que <laughs> c'est bi euh, li ko taxoon jóg c'est important aussi ñu aborder yi nga xam ne mënu ci ñàkk euh, mais xam naa dinañ ci dellu si waat alors maître Ousmane Seye est-ce que vraiment di ngeen yombalal yeew wi vraiment ñu doxal. Ah, parce que Moussa euh, nee na askan bi dañ leen yoon yónni yàkkamti leen te ñu leen di galgal. galgal bi aussi am na luñ ci dund. galgal am na luñ ci dund vraiment ci ville de Dakar. est-ce que loolu di ngeen leen ko euh, yombalal quand même. muy waaw indiwuma fi. non non ñu dem ci li la fi indi wax damay ñëw rek. waaw débatteur daf fi am. am mhm. Abdou Ndéné Sall bi nga xam ne mooy responsable ñëw. toog ak ki nga xam ne lu ne waxoon na ko. Mhm. ma gis mu génn ay document indi ko. wane ko wane ay contrat la waaj a waxoon yëpp dara du ci dëkk c'est-à-dire que c'est facile nga ñëw fii di wax ay loo xam ne mënoo ko firnde non non non loolu loolu lay wax ci affaire bi loolu laa ci wax dégg nga am na loo xam ne termine du Sud man il m'a convaincu avec des pièces à l'appui et finalement ki nga xamoon ne mooy contradicteur il était resté bouche bée man donc j'en ai terminé pour ça. maintenant gis nga euh, Pape euh, mairie. Hmm. muy mairie de ville. wala mairie commune. kenn du ko jël di ko xeexi nguur. nguur aussi war ko xeex. nguur du la xeex. Ah nguur amul intérêt di xeex un maire. parce que parce que parce que la municipalité. non ma non su ma laajee damay wax suñu si non non non d'accord allez-y bàyyi boo waxee man dama lay wax li ma xalaat ci li am la. cest c'est-à-dire nguur amul intérêt di xeex mairie parce que mairie c'est démembrement nguur état la. politique ak nu mu munti def politique état lay xeexee di xeex sa politique c'est pas possible gis nga wax ji dafa bëri il faut ñu koy seet seetaat wax ji. dafa am yoo xam ne yenuwul maanaa taxaw defoo dara naan nguur moo may xeex fekk ne yow yaay xeex nguur ak sa mérite mais Dakar bi opposition bi di gagné Dakar ba léegi da ngay gis conflit entre le maire et l' exécutif et le pouvoir exécutif mais kan mooy indi loolu est ce que président am na intérêt donc ki taxaw ne man reconnaître ma tel président ma président reconnaître ma ko nga foog ne bu ñu ko joxee maire du essayé xeex du ko du ko xeexee président bu koy xeex président président dafa koy dafay di ko seetaan. nga xam ne au lieu kon mu liggéeyal mu liggéeyal askan bi nga xam ne loolu lañ ko fal. Mm-hmm. naan dañoo yàkkamte parce que askan bi moo ñu fal bu ñu la joxee loolu nga jël loolu ak moyen yëpp doole yëpp nga def ko pour ne dama koy xeex pour nekk président de la république loolu euh, aussi ñu il faut ñu wax ko xam nga fii dafa am discours boo xam ne la violence même dafay génn ci discours. xam nga nekk un citoyen sénégalais nekk un homme politique taxaw ne reconnaître ma tel président wala bu ma nekkee maire du ma wax ak président wala du ma collaborer président mais kooku c'est violent c'est de la violence verbale kooku un responsable mënu ko wax waru ko wax ba pare taxaw ne léegi su ma su ma nekkee maire su ma bëggee def dara bu ma ko mënul def dinaa ko wax population yi pour population yi jóg pour insurrection mais y' a des responsables politiques qui nous sont habitués insurrection ci plateau bi. ma ne am na loo xam ne bu ñu ko analysé naa ko wax population bi pour population bi jóg parce que da ngeen ñu ko habitué parce que suñu waxee ñu ne 3 mars effectivement moom ngeen di employé toujours c' est votre arme politique. je suis désolé il faut après les faits par les faits il faut avoir l'honnêteté de répéter les mots qu'on a employé. damay tontu parce que da nga utiliser ma ah, utilisé li ma wax. loolu nga wax te dama koy. loolu nga wax dañuy les populations yi les populations sont pas des chairs à canon proposer un programme jublu liggéey ci nañu nguur gi dimbali bañ ñu galgal bu ñu galgalee ba tere ñu liggéey on prendra les populations à témoin loolu sere naag insurrection je pense qu'il faut respecter les Sénégalais qui nous écoutent mooy wax c'est-à-dire man bu may wax euh, li ma intéressé mooy population yi. maître non non non Moustapha baal ma rek non bëgguma aussi maître di di rek non moom mooy wax. bàyyi ko rek voilà allez-y dama ne. Ah, waaw waaw allez-y les populations ne sont pas des chairs à canon. Mhm. am na ñoo xam ne. lépp lu ñuy wax ils ont recours aux populations ne leen jóg ñëw leen protéger leen dem leen ci tali bi extra et tout dem leen xeex ak alkaati c'est tout le c'est leur programme politique c'est leur arme politique loolu dafa war a dakk bu fekkee ne dañ la jox mais bu ma tontu on est en république on est en république ah. le peuple est souverain le peuple est souverain on est en république quand le peuple a le sentiment que ne dañ koy dañ koy sonal le peuple mën na jug défendre li mu war défendre loolu nag c'est nag kooku nag c'est un discours violent ah fi muy def nii c'est un discours violent c'est un programme c'est un action moom lay la xamee waxuma waxaguma fi sax résistance tuddaguma fi résistance ci leen ko xamee xam nga loolu insurrection ci yéen lañ ko xamee poser une question euh, pertinente populaire je t'en félicite c'est votre parce que da nga posé une léegi nag bu ngeen jëlee maire bi di ko xeexee nguur nguur gi du leen seetaan voilà bu ñu leen mu terminal maître s'il te plaît parce que li muy wax moom jumul fenn Sénégalais yi nga xam ne ñoo dëkk dans les six cent six cent collectif six cent une collectivité locale ñoom seenu dund dafa war a nekk ittey képp koo xam da ngay Par moi, j'ai été à la ville de Dakar en tant que conseiller municipal. Pour affaire des encombrements de la voie publique, pour ñi nga xam ne ñooy jaay ci mbedd ñu wutal leen fu ñu nekk on a construit deux immeubles. mënuñu mënuñu fa yóbbu nit ñi parce que ñun amuñu force publique bu ñu yorul boo xam ne pour yóbbu fa nit ñi même l' occupation de la euh, des territoires pratiquement mënuñu ci dara ça veut dire quoi Baye Ngagne li am solo li ma jàpp moom pour l' intérêt des populations. jokkoo mënta ñàkk. maire d'une intérêt mooy mu mu collaborer en intelligence avec avec l'État maintenant nag gis nga man gëw ma ay du wax ak président de boo ci boo nekkee boo nekkul maire gëm naa ne boo nekkee maire da def leneen parce que loolu waxu xam nga xam nañ fa yàgg ñun ci gis politiciens yi discours yi ñu daan yor mhm. Abdou Diouf toog nañ fi reconnaître ñu ko après les élections de 88 mais finalement même avant mandat bi jeex Abdoulaye Wade rentre dans le gouvernement pour man loolu am solo li am solo rek mooy euh, responsabilité yi nag pour man ki mu gën a incombé mooy le président de la république. absolument parce que moom décentralisation moo dagg ci état moo dagg ci wàllam dénk ko commune yi. Hmm. pour ñu ja ñu jàppale population yi ciy dund. ginnaaw noonu la demee nag li ma jàpp mooy kenn ku ne li nga li la war def li nga war a def war nga koo def ba mat sëkk. pour que les populations sénégalaises parce que nag ay doomu Sénégal ñoo nekk ci communes yi ñoom ñoo soxla lumière. ñoom ñoo soxla mbedd yu set. ñoom ñoo soxla sécurité ñoom ñoo soxla problème transport. Mhm. te loolu daa bokk ci loo xam ne collectivité locale yi war nañ leen ci mën a jàppale ba seen dund mën a gën en vie. bay ngeen mhm. nañu ko c'est-à-dire bu ñu gën politiciens yi. ce qui s'est passé hier avec dignité sénégalais yi jóg. fajar dem wote ji mhm. def li ñu bëgg jàpp naa ne kenn ku ne ci nun da nga leen a war a fexe ba Sénégal yooyu duñ jëppi démocratie mhm. or jëppi démocratie du koy indi mooy bi dagg si fexe ba mënuñoo liggéey loolu dara maître da nga am loo bëggoon daaneel rek s'il vous plaît ah man kay day maa wax waaw non mais waxal s'il rek parce waxee ñu waaw mais léegi s'il baal ma rek nga teel lii Moustapha di wax mhm. mooy ku nekk bu yemee sa place def li la yoon sant ak li tax ñu teg la fa teg jàmm na ñooy. bu fekkee da nekk maire. di exercer compétence su la base des compétences transférées. di collaborer avec le pouvoir xam ne c'est le pouvoir c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation xam ne maire bi dafa dul appliquer localement la politique de la nation respecter la mu ne déedéet nga respecter président de la République may ko cër loolu wax déedéet la wax de non nee na nee na loolu wax de xam nga man Moussa xam nga loolu jël parole te bu ngeen defee nii day xaw a non noppi naa noppi naa je vais je vais préciser je vais préciser xam ne askan bala fa teg tegu la fa pour xeex tegu la fa pour xuloo tegu tegu fa pour ngay serviru askan bi comme des chairs à canon liggéeyal askan bi lañ la wax ci apaisement dans la paix et la sérénité coow du am. mais nag bu ñu la joxee mairie nga jël ko bu ko xeexee nguur. jël say population di leen di exposé. ñuy def ay marché di taal ay pré di taal kër nit ñi di di jamante di xeex. mais loolu kenn sant ko. loolu duñ ko xaar ci yéen. Ah, li mu wax noonu. Euh, non seulement non duñ ko xaar bu bu dee ci ñun rek dinañ tardé. waaw dinañ toog lu yàgg duñ ko gis. li ñuy gis rek mooy ay yeneen victoire yu ñëw loolu rek la ñuy gis parce que comme je l'ai dit ñun dañu xam ne peuple bi mooy interlocuteur bi ce n'est pas répète ce que j'ai dit encore une fois parce que man je n'ai pas peur des mots je choisis très bien mes mots gis nga dañu yónni yàkkamte ñu dañoo bëgg a liggéey parce que xam nañ ne loolu mooy mooy li ñu andi buñ ñu galgalee di ñu di ñu di ñu wax askan wi wan ko ne kii ngeen fi teg mu dem assemblée nationale wax seen député yi voté une loi sur la décentralisation parce que coow li bëri wax ji waaw bu ñu kii ku nekk na yem sa place mais ku xam république naññ amuñu xuloo waruñu xeex les textes sont clairs deuxièmement loolu tax ma doon rey sànq quand il dit que le maire est là pour appliquer la politique de la nation du président de la République mais je suis absolument désolé absolument c'est c'est différent il y a une nuance et ça et là c'est le c'est le c'est là c'est le conseil technique déglu ma c'est le conseil technique qui te parle ah, les les collectifs waaw ah, mais mais donc damal nga xoolaat que texte de loi yi <laughs> les maires ont une autonomie de gestion décentralisation décentralisation mooy le maire et le conseil peut de manière manière autonome décider. ils ne sont pas là décider de nan lan mooy priorité bi. ku la jox compétence non taxawal non mais mais il faut faut écouter. gis nga les mots ont le sens encore une fois. jox la compétence. dina ma may ma yeggali. non di nga terminer dina terminer dina terminer de. fi nga jëm xam nga fi ma jëm xam nga ko. xam naa fi nga jëm fi ma jëm xam nga ko moo tax du bàyyi ma yeggali. xam naa leen noonu ngeen mel. non damay yegg. ñu ne ñu ne ñu mel nii dañ ci sant yàlla moo ñu may ndam dañuy ah, continuer du ñu dellu ginnaaw. d'accord li may préciser mooy euh, décentralisation première année kii def mes étudiants là à l'UVS à qui j'enseigne décentralisation premier cours dañ jàngal mooy la décentralisation l'essence de la décentralisation mooy le maire le conseil ont une autonomie de prise de décision on leur a donné décision oh. quelle décision autonomie waaw Père Diakhaté. dañu encadré say décision. mais non mais mais mais mais. tu ne peux pas débattre sur n'importe quel sujet xam nga quand un juriste se fait avoir dans son propre jeu mënut a réagir que quelqu'un de cette manière. mais laisse-moi juste continuer quelle décision. mais laisse-moi juste continuer. alors tu peux délibérer sur n'importe quoi. non dé non déglu ma rek man. bañ nañ ko ba tu ne peux pas délibérer en dehors du conseil man kenn du ma jàngal décentralisation. je l'enseigne je l'applique je l'enseigne je l'applique. mais maître non maître li may wax nii li may wax ni tes étudiants sàkk ne tu es passé à côté. li ma lay wax kenn du ko dindi ci réew mi. kenn du ko dindi alors du ma mais. ma yeggal parce que fi ma bañ ma yegg naa fa yegg. décentralisation essence bi base bi mooy le conseil décide de l'opportunité de la prise de décision. quelle décision est-ce que c'est opportun dans le domaine de compétence. est-ce ah, que c'est opportun suñu santé yi est-ce que c'est mais on ne parle fi nga fi ma ñëw ils sont là pour appliquer la politique du président de la République. absolument ils n'appliquent pas ça ils appliquent la politique de la décentralisation ils ont une autonomie de. qui définit la de la décentralisation lu nit xal ñàkk a xam ñàkk a xam. xam ne décentralisation mooy. gox bi toog discuter ne ah, ah ñun kat suñu duñu gox bi problème éducation mooy priorité santé baax na. le débat de mauvaise foi c'est grave parce que bu ñu toogee fii nit ñi dañuy seetaan ñuy discuter sur sur le fondement de la décentralisation mooy l'autonomie de la prise de décision l'opportunité décision loolu bu ñu ci discuter mooy li ma waxoon sànq rek mag mu gis naaj bi ne du ko gis man loolu du ma ci perte sama temps ñun dañuy avancer li ma amal solo mooy. mais maître nag yow dafa mel ni ngay saboter de. non day saboter day saboter mais li ngay wax nii man dérangé wu ma de man dara ah, bawoo la yii nii yëngalu ma <laughs> amul benn problème maître yow wax nga ba pare bàyyi ko mu wax yow tam s'il vous plaît bàyyi ko mu wax yow tam dafa am lu la déranger ci li muy wax xanaa. Ah, bien sûr parce que bàyyi nga xam ne yow un juriste république ñu voté loi assemblée ne décentralisation texte de loi conseil municipal autonomie de la prise de décision nga ne ils sont là pour appliquer la politique de la nation quelle politique de la nation président de la république Macky am na vision ak ay mais maire ba ca Sangalkam maire ba Sangalkam il ne définit pas une politique la nation il dessine une politique ah locale avec des réalités locales euh, et enjeux locaux. <laughs> Euh, non non conseil municipal loolu suis d'accord. Ah, lapsus ah, wax li ma c'est le conseil qui décide. le maire exécute principe bi ils ne sont pas pour mais loolu mooy base bu décentralisation président dafa xam ne man fi ma toog nii yor des ministères am na réalité yu nga xam ne su ma jëlee décision bi décision bi dafay lajj donc naa bàyyi ña fa ne ñu toog discuter seet lan mooy l'opportunité de la prise de décision politique c'est l'essence la base de la décentralisation foofu laa doon wax may ñëw ci ci point bu important sànq dañ ko wax ci ci affaire euh, ci affaire ci affaire décentralisation ñun ñun li ñu gëm rek mooy nañ ñu bàyyi ñu liggéey xam nga dañ ne nguur ñun dañuy xeex nguur ñun ñëwuñu pour xeex nguur franchement. loolu boo koy def sa bopp discours xam nga Pape. non naa jox naa la ci exemple tout à l'heure discours bu ne am na contexte. président Abdoulaye Wade tey wax na fi lu ne ci contexte bu ne. ramenons les choses dans leur contexte les faits étant sacrés Ousmane Sonko bu taxawee or ñu génn élection présidentielle mu taxaw sa Seck borog borog soow taxaw. ah Issa Sall taxaw ñu toog Ousmane Sonko toog ñu discuter ne ñun kat irrégularité yi ñu gis ah bi ci président bi kat moom reconnaît euh, ni mu gañee salte na on reconnaît nag comme président mais ni mu gañee nii c'est illégitime loolu lañ fi wax. Mhm. li li ci des nag moom c'est des xam na euh, politique lañ nekk de temps en temps euh, président taxaw wax ne ah, fañ fañ wàccaa caa je réduis l'opposition à sa plus belle euh, expression ñun tam ñu ne ko da ngay wax la neex rek réew mi ñoo ko bokk ëppale wuñu fi dara ni nga amee droit wax loolu lañ amee droit wax loolu la rek bu ñu ko yóbbu fu mu yóbbuwul nous sommes des gens responsables xam nañ ne askan wee ñu yónni bugguñu décevoir te on on va être responsable seetu ji nag lu neex nit seetuñ ci lu naqari nit li ñuy def rek mooy suñu tara ñu tara yu bàmmeel parce que nag politique pap ñun ñi fi toog ñëpp li ma jàpp mooy kenn ku ci nekk am na lu mu jàpp di ko suturloo bu ci toogee rek dundal njabootam ba keroog ay fanam jeex ñun bu ñuy politique c'est parce que dañ jàpp ne xëy na suñu àjjana mi ngi ci xëy na suñu yeg yàlla sant ñu mi ngi ci parce que dimbali sa askan dafa bokk ci jaamu yàlla bu dul loolu man gisuma nit koo xamante ne tey cadre nga gisuma tax ngay politique donc ñu loolu moo ci dugal ngir yàlla réew mi ñoo ko bokk buñ dul seen i mag doon seen i rakk buñ dul seen i bàyyi ñu doon suñ suñuy doom nañ ànd rek teg mbir mi ci yoon ñu wàññi complot yi wàññi xam nga jéem a sàcc élection yi mhm. yooyu yëpp ñu wàññi ko pour ñu pour ñu mën a am jàmm loolu rek lañ bëgg bëgguñu leneen d'accord leer na Moustapha yaa ngi bëgg am loo leeral ci li nga xam ni indi na réeroo ci seen diggante tout non non non en fait sax problème bi jàpp ma ne sax réeroo am na ci malheureusement dama koy wax toujours bàyyi ñun bokk na ci li ñu jafe ñun classe politique Sénégal mooy nu waxtaan absolument C'est-à-dire on est dans des polémiques on est dans jàpp naa ne jafe-jafe yi réew mi di dund euh, soxla yi réew mi di dund képp koo xam ne da sol takk sa ndigg ne da bëgg a liggéeyal réew mi jàpp naa ne war ngaa jiital ne benn yow rek amoo dëgg. ñaar gënoo bëgg waa réew mi kenn. jàpp naa ne yooyu bu ñu ko dajalee rek waxtaan du compliqué maintenant li ma gëm. parce que moi j'ai été conseiller municipal de 2012 de 2009 à 2012 difficulté yi amoon diggante la ville de Dakar ak l'État pour man ça produit des choses yoo maanaam meñ gën maanaam jur na yoo xam ne du njariñu population Dakar. absolument ça veut dire quoi yow bi nga xam ne yow moom yow dañ laa fal la nga war a góorgóorloo mooy fexe ba état bi doo am ak moom jafe-jafe bu mu yàq sa liggéey benn ki nga xam ne aussi mooy état bi. mu fexe ba collectivité locale yi nga xam ne yoon moo leen moo leen créé yoon moo leen joxe pouvoir mu mën a déglu liggéeyam mais gëm naa ne bu fekkente ne dañ ko bëgg a def ay question d' affrontement du sotti maintenant nag un politicien qui sort d'une élection présidentielle ou ba ñu gagné ko mu naan du ma reconnaître président loolu yàgg na fi du tax gëm naa ne bu waree pro parce que quand même une une commune. une commune, tu travailles d'abord avec, le préfet, avec le sous-préfet, qui sont des représentants de l'État. Donc tu n'as même pas besoin de travailler avec le président de la République. C'est ça, moi, Parce à de le maire de mais vraiment pour les maires des autres régions, tu crois qu'ils pas besoin de travailler avec le président, ils travaillent avec l'administration. Merci nga bay nga mhm. euh, li ma gëm mooy bu fekkee ñun waa Sénégal parce que nag ne on a soxla nga sa morom pour Sénégal avancé mais malheureusement réew mi maanaam nit ñi te lu ñoo waxante ku ne yaa ngi tibb sa morom tànk kenn ku ne yaa ngi xas sa morom te gëwuma ne la la la classe politique affaire u moo war a nekk suñu diggante en gros pour man le peuple sénégalais a choisi de maire des conseils municipaux a choisi des maire après a choisi des conseils départementaux ak des ak des présidents conseils départementaux ñu fal lañu war a góorgóorloo mooy fexe ba li ñu li ñuy xaar ci ñoom ñu def ko. te mënuñu koo def nag te am nañu ceeg état bi. merci beaucoup euh, maître euh, affaire u gagné Dakar loolu indi na am na noo ko gisee keneen gisee ko neneen mais Yoff moom mën ngeen d'accord ni perte ngeen ko. non ñun d'accord nañ sax ne perte nañ Dakar d'accord nañ ne euh, bëggoon nañ reconquérir Dakar antuwul Yoff antuwul fu mel ne Grand Yoff antuwul mooy mooy mooy sa fief yow fi nga nekkoon. waaw effectivement fief voilà donc perte ngeen ko. oui d' accord nañ ci ñun nous sommes des démocrates et des républicains. parce que quand même c' est nous qui gérons le pays. et puis duñ intoxiqué di désinformer. population bëggoon nga ne candidat sax de yow foofu à Grand Yoff ah. oui mais man candidat laa woon au niveau de la ville de Dakar. ok voilà mais on a perdu les élections on l' accepte on félicite même. ceux qui ont gagné parce que c'est des Sénégalais comme li ñuy xaar ci ñoom mhm. mooy programme yi ñu def ba ñu fal leen ñu appliquer ko et on souhaite ñu appliquer ko au profit des populations yi neen fal inchallah mais mais pour ñu appliquer ko aussi il faut l'État jàppale loolu laa la doon wax dama ne maire bi bu xamee ne waaw bu xamee mooy kan parce que dafa may fonds yoo xam ne dafa jóge ci état di dem ci dafa nekk dans te war république bi dafa am état état bi dafa am ay démembrement moom ci la bokk n'est-ce pas le maire est officier même d'état civil du dëgg bu xamee loolu mais war na collaborer avec l'état parce que ci la bokk mais boo nekkee maire ne reconnaître ma président de la République du ma waxtaan ak président du ma collaborer ak état lu ma neex laay def maay appliquer sama politique même national mais loolu du cëru loolu loolaa doon wax léegi décentralisation état bi moo jël ci ay compétence am mm. moom mu transféré la ko. d'accord moo tax moo tax ñuy wax compétence préférée. mu ut ci neuf transféré mu ut ci neuf compétence mm-hmm. ne compétence yi man maa ko moom mais jox naa leen ko pour avec les populations ngeen appliquer ko ci seen ay local loolu mooy décentralisation. d'accord mais boo ko bëggee jël ne man maay président de la république man président sax mooy sama nawle. ni muy gérer état bi noonu lay gérer état bi extra yooyu mais du dem. d'accord looloo tax ma ne. yëf mun na dox. Mhm. bu ku nekk xamee la la war. d'accord nga nekk léegi euh, Moussa. oui baal ma nag nga tontu ma ko. parce que parfois da ngay bëgg di di tontuwaale te loolu day tax ñu perdre du temps nga baal ma. incha dafa am polémique bu amoon ci. Euh, Euh, ci engagement yi euh, Ousmane ko doon jël Ziguinchor notamment la monnaie locale. absolument mu di woon coow. Mhm. repréciser na ko mais convaincre ñu bëri. ñu bëri daanaka génn nañ ci. ni ñu ko gisee demewul noonu ndax loolu ñu ngi nekk ci seen programme ba tey. téye ngeen ko à Ziguinchor parce que bi ngeen koy wax téye woo leen maire bi téye ngeen ko mhm. ndax jàpp ngeen ni aussi tam engagement la bu ngeen mën a bu ngeen mën a def foofu à Ziguinchor mhm. ak naka nga yan leeral nga mën di ci wàll boobu muy monnaie locale bi gis nga question bi nga posé dafa am solo parce que day wan dina la ci wan ne ñun on logique de collaborer avec l'État gis nga monnaie locale complémentaire mënut a am su ko BCEAO autorisé wul su ci état kon génn ngeen ci donc donc non génnuñ ci on va le proposer mooy li ma waxoon rek xam nga man sama waxi wax moom jali muus la. day bëri rek mais day ñëwaat xam nga sànq dama ne lépp lu ñu yéene askan wi dinañ ko expliqué doxal ko suñ ko état tere ñu ne laa ah, état mi ngi nii. donc mëneekal complémentaire dinañ ko présenter projet bi gën ko leeral présenter ko. xam nga réew mi dafa bëri ñoo xam ne dañuy wax c'est-à-dire que souveraineté monétaire rek bokkul ci sa am na politique am politique yu bëri nga xam ne souveraineté monétaire rek l'importance de la monnaie bokkul ci seen discours politique donc ñooñu tey pour ñu comprendre luy mën a defal complémentaire day jafe ci ñoom xam nga souveraineté monétaire mooy réew mu nga xam ne dafa am possibilité créer monnaie di détruire monnaie ba noppi di financer les banques pour maintenir le taux interbancaire très bas pour financer l'économie loolu mooy importance su dëkk yi am seen monnaie yépp pour financer l'économie loolu ça n'a rien à ak monnaie locale complémentaire monnaie locale complémentaire monnaie la boo xam ne day circuler ci benn territoire uniquement pour que benn monnaie par exemple di supposons ñu ne benn burok ñu di jox exemple boobu pour nit ñi mën a comprendre pour que donc xam nga elle est complémentaire amul création monétaire dem jënd benn 10 000 bu rog ba noppi nag commencer consommer xam nga sa sa 10 000 francs CFA mën nga ci def ñetti mbir mën nga ci épargner mën nga ci investir mën nga ci consommer monnaie locale complémentaire mënoo ci def dudul consommer et tu ne que des produits locaux l'objectif d'une monnaie locale complémentaire mooy day créer benn synergie d'affaires entre les producteurs locaux et les consommateurs yow ngay teg benn 10 000 jël benn monnaie complémentaire dem consommer 10 000 boo ko dajalee mën nga ko jël financer l'activité économique nii c'est un outil de développement local c'est un instrument de développement local day renforcer bañ nañ ko ba sax ont montré qu'une monnaie locale complémentaire circule dix fois plus qu'une monnaie normale donc créer wuñu monnaie la monnaie est complémentaire. te bari na ci ay bari na aussi ci ay dëkk yu. bari ci dëkk c'est un outil bu am solo la parce que. xam nga li mbëri di wax mbëri dañ naan concept bu simple. mbëri dañ naan nañu mayante xaalis nañu bëri suñu biir mën nga xam ne dañu mën a consommer suñu biir. loolu la c'est valable en France. c'est valable au Canada Sénégal nag. da andi xam-xam. ñu andil la pexe merci beaucoup nga wax ko Casamance ñu ne dëkku dëkku rebelle la stigmatisation ko waaj Moustapha loolu euh, dafa mel euh, kon Sénégal mën nañu légaliser l'homosexualité parce que légaliser nañ ko France légaliser nañ foofu le mariage homosexuel. kon ah on a voulu l'interdire de c'est seen ancien copain yee ko bloqué. Ah, bala xam naa ne ginnaaw yàlla dogal na nga liggéey ci banque yaa ngi dënd coupe juriste xam nga ne muy seen muy yow ak man ak les maires dañoo tënk ci loi mhm. fii ci espace UEMOA mu juróom-ñetti réew yi bokk UEMOA benn monnaie lañ fi mën a jaayante jëndante muy le franc CFA cette promesse là ne peut pas se réaliser xam nga lu tax am na benn waay boo xam ne tëj nañ ko ci kaso affaire monnaie monnaie local tëj nañ ko ci man monnaie même yow boo yoroon ay dollars dem ci boutique di ko jënd soo ko joxee boutique bu ko jëlee mën nañ leen jàpp yéen ñaar parce que amul cours légal dans l' espace UEMOA kon promesse une d' abord il n' avait pas parlé de de monnaie locale il a parlé de monnaie casamançaise. non non non xaaral ma koy rek sëñ bi. Eh, non xam nga damay bañ ko juum man le programme. ah non waxuma sa dañ ci ah, ah, liggéey ñun ñëpp dafa leer monnaie locale complémentaire c' est le projet numéro 17. xam nga man xamoon yaa ko bind programme bi. waxuma maa ko bind de. Ah, wax day leer dama ne la programme bi dañ ci travailler présenté ko. buñ ko présenté ñëpp di toog xam nañ li ci ne. donc c' est précis monnaie locale complémentaire voilà. dans l'espace UEMOA n'a pas de compétence pour créer une monnaie locale benn <laughs> amul ci attribution yi nekkul ci code des collectivités territoriales jokku cër boobu deux dans l'espace UEMOA kenn rek moo fi mën a defar monnaie monnaie bi di dox di diggante ci nit ñi muy la BCEAO donc c'est une problème le problème mooy xamuñu luy monnaie ak monnaie locale complémentaire boo ko xamul da ngay comparer ne monnaie locale complémentaire la BCEAO ne l'acceptera pas dans l'espace UEMOA waxuma Sénégal mais dans les huit pays de l'UEMOA une monnaie locale du fi am donc kon ki dig nit ñi soit xamul ne BCEAO da koy tere. wala daf doon def une promesse démagogique li ñu wax c'est simple. on va monnaie locale complémentaire ñoom ñoo ko waxoon génn nañ ci. de non non génn nañ ci de. loolu wax de dafa ne balaa ñu koy def dafa ñu autorisation BCEAO. waaw léegi ñoom vous n'aurez pas l'autorisation de xam nga leen wax ci loi dans l'espace IMOA dafa am ay mëno yoon dafa am cours légal am yoo xam ne bokk doog a c'est aussi simple que ça. gis nga gis nga réew mi réew mi. yow baa ngi nga non taxawal. réew mi xaar xaar bàyyi ko mu terminer réew mi. Mhm. dinañ yàgg a nekk ci sous développement xam nga lu tax. parce que dafa am des esprits bloqués yoo xam ne gis nga lu xewul fii ñoom dañ jàpp ne lu seen génération xamul rek waruñ ko def. gis nga France. non non non non Balla Balla xaste yi ngay def. non xaste wu dama xam ne je dis les faits. yéen a ñu gën a mën yéen a ñu gën a xam. de l' humour le de la bés yow. waaw mais bàyyi la xam nga xam dans quelque région que ce wolof dafa jàngale ne. way jur woo gis bu sañoon ay doom gën ko wayjur rek mooy taxaw ne su ma doom yi su ma sañoon gëm dama dama jàpp ne suñu mag ñi fi ne buñu sañoon ñun ñu gën leen xarañ gën leen avancé def yu bees yoo xam ne amu fi woon donc bu leen ñu bloqué. mais bés yow nangu ko c'est la bés ah, yow mais ma yeggali. mais na tegu ci yoon na tegu ci yoon. mais ci yoon bi tegu mais c'est yow ko reconnaître ne suba ma d'accord xam nga nit ki buy wax àdduna nit su waxee nit su waxee lu la dépassé dama nga gëstu. c'est interdit par la banque centrale. c'est pas interdit. Moustapha yow nekkoon nga BCEAO de. waaw oh, wax dëgg yàlla jaar naa ko de. bañ dàqee ma ba ci du syndicalisme. gis nga monnaie locale complémentaire processus bi c'est très simple. premièrement processus po ñun dañu ñëw proposer ko yi mu nekk benn instrument de développement local. mu xew ci yeneen dëkk Banque de France autorisé ko. Ah, banque du France développé Sénégal dellu ginnaaw. Ah, xam nga dañuy wax xam nga wax ji des wax du neex. il faut qu'on se les choses les instruments qui font avancer. Ah, le pays parce que local moo tax ñu dellu ginnaaw amuñu par exemple amuñu autonomie financière amuñu eh, amuñu instrument wax nga monnaie locale sax c'est compliqué maa ngi koy expliquer fii mais apparemment ça a du mal à rentrer mais même monnaie monnaie souveraineté monétaire nga am capacité détruire monnaie créer monnaie am sa taux directeur di financer sa taux interbancaire loolu rek nga xam ne ça existe au Canada en France aux États-Unis c'est la norme amul Afrique te jusqu'à présent y a des Africains qui disent que c'est trop compliqué pour ñun et on refuse le développement gis nga on refuse le développement on vous amène des instruments décentralisation li ñëw voté loi non même ma yëgale même ma yëgale sénégalais. problème monétaire am na France. bien sûr. absolument. monétaire boobu kan moo koy exercer en France. mais c'est la banque européenne avant c'était la France bi France avant France di dugg di dugg euro. France moo ko doon exercer en toute autonomie. maintenant bi ñu demee euro ñu discuter ñoom ñoom teg teg des nouvelles règles. la souveraineté monétaire du Sénégal exercée par la BCEAO. non c'est faux parce que les Européens sont souverains ensemble ñun on est non souverains ensemble ñun dañoo nangu tënku ci France dañoo nangu ne ñun on renonce à la souveraineté monétaire en communauté on est sous le dictat de la France les européens ñoom ils étaient autonomes avant ñu xool ne seen espace économique bu ñu ko bokkee affaire bi day ñoŋ ñu bokk je reviens sur li ma doon wax parce que loolu moo am solo. dans le chemin pays, nous savons c'est grâce à qui. xam nañ homme politique. yi imposé wu ce débat là ba ñu avancé. nous savons c'est grâce à yi donc ñun. andi nañ non xam ngeen bu ngeen a bàyyi leen ko mu terminer après bi bu fekkee intéressé na c'est ça heureusement aujourd'hui on parle de l'éco man je trouve que c'est discuter bu d'accord on a deux choses mais laisse-moi juste continuer l'éco avantage mooy on a dañu am autonomie gouverner discuter gouvernance boobu c'est ferme discuter ba noppi ñoom ñoo am ñun créer comme Union européenne ce qui c'est différent de la situation actuelle je reviens sur Burok parce que man duma poser parce que c'est un outil de développement local. dinañ ko monter explique population yi. déposer ko BCEAO BCEAO mën na ko autoriser. comme mën na ko rejeter su ko rejeter ñu waxaat africain ne leen encore une fois. BCEAO bi bañ ngeen am souveraineté monétaire ba tey mënu leen financer économique tey encore une fois bañ na bu ko defee jeunesse yi gën consciente gën a mën réew mi parce que Yewwi Askan Wi nañ wax Yewwi Askan mooy lan réfléchir sur bi askan bi mooy régler problème yi moo tax boo leen ñu naan révolution ils ont peur askan bi mooy régler merci beaucoup alors xam naa ni dañuy dañuy dañuy dañuy dem ci ay questions yu mujj rek mm-hmm. maître Ousmane Seye élection yi résultat yi ban enseignement nga ci mën a tirer boo mën a jàkkaarloo ak Sénégalais yi nga wax leen ko mu nekk loo xam ne lu dëggu la lan nga ci mën a tirer. dëgg la je crois que euh, bi may commencé émission bi wax naa ko. waaw euh, enseignement bi ma ci njëkk a mm-hmm. mooy élection. Sénégal yàgg na ko def. Mhm. ca dafa renforcer la démocratie. d'accord dañu renforcer mais bëgg naa aussi nga nga waxaale ci sa coalition. waxaale ci ak sa parti dañu renforcer suñu système électoral. Mhm. que wax yi nga xam ne teguñ ko fen loolu loolu naan affaire waxi fichier. dëgg dëgg la ak waxi fraude. waaw dama ne élection yi wane na. réglé na loolu yëpp réglé na ko. tout à fait dañ ko war a bàyyi ci ginnaaw waratu fi ci nekk nag. Mhm. war na def taxaw seetlu man fi ma bokk mooy benn bokk yaakaar. am na. lu ñu doon si yóotu par exemple reconquérir Dakar reconquérir Ziguinchor mënuñ ko def am na ay dysfonctionnement yoo xam ne mais ndax seen casting yóbbeewu leen ko ci investiture yi. en fait am na loo xam euh, ci li ñu li ñu déggoon mooy euh, président Macky Sall jàppoon na ni dafay nekk candidat bi gannaaw loolu amul ba moom mu ne sax président trahir na ko est-ce que tey bu fekkonte ni Balde nekk na seen candidat foofu Benoît jàppale ko Doudou Ka jàppale ko est-ce que yaakaar nga ni bu boobaa lii mën na fa xew. am ngay benn bokk yaakaar moom majoritaire dans ce pays là su ma la joxee par exemple Grand Yoff ba ma nekk am na cinq listes yoo xam ne ñoom ñëpp ci benn bokk yaakaar lañ jóge ma yaakaar ne buñ bokkoon ànd kenn du foofu parti socialiste bi ngay gis ci benn bokk yaakaar bokk am na sax gañe na sax Tambacounda foofu yëpp gañe ay commune je crois que bu fekkoon ne boole nañ suñ doolee ñun ñëpp ci benn bokk yaakaar kon élection yi du demee noonu. liste parallèle yi bëri na. am na ñoo xam ne ci ñun lañ jógee jël seen liste parallèle gagné ñoom rek. Mhm. kon ñooñu bu ñu bokkoon ci ñun kon kenn du ñu gagné donc am na ay problème mhm. pourquoi mu am ay liste parallèle pourquoi mu am ay parti yu bokk benn bokk yàlla génn ber seen bopp demal seen bopp yooyu je crois que dinañ ko régler élection yi tax na ba ñun au niveau de benn bokk yaakaar foog naa dinañ toog xoolaat yëf yi seet yi fu mu jógee defaraat ko parce que am am na ay yeneen échéance électorale yu nekk suñ kanam je crois que balaa ñu fay dem dañu régler suñu problème ba nga xam ne ñi nga xam ne noonu lañu nekkee Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne gañewul sax Yoff est-ce que du woon erreur ngeen investir ko Dakar comme comme candidat mais kooku xam naa dinañ ci waxtaan mais en tout cas man li ma jàpp ba léegi je crois que am lay Diouf était le candidat boo xam ne il avait un bon profil hmm. compétent la cadre la am na expérience am na programme bu mucc ayib d'accord je crois que man vraiment niñ perte Dakar sax daf ma xaw a bees je crois que dafa waroon gagné li tax nag mu perte il faut ñu analyser ko fi ma toog nii munuma ko analyser dafa am ñu ma bokkal coalition bi je crois que ñëpp bu ñu indee seen analyse nañ def analyse parce que man munuma toog fii wax ne ñun ni ñu diggee ci élection bi dañ ci dugg d'une manière franchement boo xam ne lépp neex na ma am na yoo xam ne ay erreur la am na effectivement ay erreur de casting Euh, code électoral bu bees bi. président de la wax na ko man ci commission politique bi laa bokkoon. règle ya ca nekk yëpp règle consensuelle la. c'est-à-dire que opposition bi ak pouvoir bi dañu waxtaan juboo ñu def ko loi ñu ne. ki nga xam ne mooy tête de liste scrutin bu gagné mooy doon maire. c'est-à-dire que le maire est élu mhm. au suffrage universel direct. loolu ñun ñoom ñoo ci d'accord. Mhm. après affaire proportionnel beeg majoritaire bi ñu def proportionnel. 55 mhm. euh, pour cent euh, majoritaire 45 pour yooyu yëpp dañ ci waxtaan daal di ci jot ci jub mais su ma jëlee par exemple ne dañuy d'accord ci ne maire bi dañ ko war a élire au suffrage universel direct. mooy maire bi ngay tànn dafa war a doon nit koo xam ne rassembleur la. en général un policier doit être généreux. dafa war a nit bu baax. xol bu yaatu. Euh, war a nekk compétent. parce que ñu ngi dem ci jamono boo xam ne mais nit koo xam ne jàngoo et tout ça waroo jiite yenn affaires yi nañu waxante dëgg. Euh, dafa war a nekk nit koo xam ne aussi. Euh, dina présenter programme population yi pour population yi daal ci d' accord. Mhm. kooku parce que nit ki jiite liste yi dafa am importance ci élection yi. est ce que respecté nañ yooyu critères ci ñun suñu ay choix. je crois que am na ay ay milieux yoo xam ne am na ay candidats yoo xam ne remplir woon ces conditions la là donc ñun daal dinañ toog waxtaan li nga xam ne yëpp moo tax ñu perte élection bi dinañ ko xoolaat mhm. objectivement mhm. defaraat ko pour ñu dem ci ren élection bu mu ko gañ Moustapha yow fekkee la ci boole yaakaar naa waaw euh, man de personnellement mais bëggoon naa aussi ñu jàng nga wax ma lan nga ci lan nga ci mën a kii xam nga man euh, jàpp naa ne euh, ba léegi Sénégal defaguñ décentralisation mhm. ba léegi politiciens yi ñooy nekk ci conseil municipal ñooy nekk ci conseil départemental or construction bi li mu wax dafa décentralisation dafa mën a permettre citoyens yi ñu mën a participer à la à la aux politiques mais malheureusement ba suñ jotee ay tey politiciens yi ñoo nekk ci conseil bi deuxième chose bàyyi ngay Sénégal soxlawul six cent une collectivité territoriale regardez une ville comme Dakar dix neuf communes Dakar soxlawu ko arrondissement yi nekk mi lañu war def ay commune bu ko defee ñu yaatu am ay moyens yu ñu liggéey. deuxième chose mode mode de des des conseils municipaux dañ ko war a changer bàyyi ngañ dëkk boo dem ci Sénégal commune boo dem am nay quartier am nay village war nañu wut mécanisme yoo xam ne ñooy représenté seen quartier. ña nekk ci quartier ba ñoo leen koy tànn seen bopp ñu représenté seen village ci conseil municipal bi ña nekk ci quartier ba ñoo leen koy tànn seen bopp loolu la Gambie gii def gis nga loolu bu ñu ko defee li muy la jur mooy génn dañuy génne politiciens yi ci la gestion des collectivités locales sax gis nga bu ñu leen di génnee xuloo bi jeex parce que nag population yoo xam nañ fan la seen njëriñ nekk bi ci am na loo xam ne peut-être dans l'avenir maître war nañ ci mooy faire faire de cette comment faire pour investir le maximum de jeunes dans les collectivités territoriales. Mhm. nu ñu def ba am parité cinquante cinquante jàpp naa ne war nañu wut benn nombre boo xam ne dañ naan euh, nam tuddati liste bu ne na ko am ci jeune près trente pour cent près trente cinq pour cent parce que loolu li njëriñ li day permettre aux jeunes très tôt ñu initier à la à la vie publique. te mille beneen bi def seen présence dans les conseils municipaux sa va dissuasif pour les maires pour ñu def loo xam ne waruñu ko def kon encore une fois. Malheureusement, le débat pour la campagne n'a pas permis de discuter sur yan réforme de qualité la ñu war def pour Sénégal euh, nam tudd franchir une nouvelle étape d'accord defuñu ko malheureusement c'est le statu quo qui est maintenu c'est la gestion des collectivités locales pas des politiciens et ça c'est pas alors Moussa yaakaar naa yéen a ngi ci dynamique gu Yewwi Askan Wi parce que li ngeen waxoon mooy dem ci local yi ensemble mhm. dem ci législative yi ensemble mhm. présidentielle ku nekk xool nan ngay def mhm. dynamique boobu yéen a ngi ci ba tey absolument nit ki xam nga liñ naan euh, béy moom lu mu lu mu def am ci da ko war a continuer xaw ma nu ko wala fi di waxee encore ça m'échappe mais dina li ñu jaayanteeg askan wi lu mag nga xam ne jaayante nañ ko askan wi bind ko ci kayit woo journaliste yi ñëpp signé loolu dinañ ci tënku te parce que loolu c'est la moindre des choses je pense que ne ñun fi suñu bët tegu sori na foofu fi suñu bët tegu mooy comme ni ma ko waxee liggéey ba nit ñi xam ne liggéey nañ parce que loolu rek moo am solo au delà coow li yëpp nañu liggéey moo tax bokk na ci li ñu naal mooy l'ensemble des maires de Yewwi dinañu travailler ensemble def un coaching ensemble les les les li ñu naan les quick wins anglais yi di ko wax les les les les bonnes solutions les bonnes idées euh, euh, absolument absolument absolument absolument mais bien sûr on est on nous on est des républicains on est on est on est très républicain ah dama bàyyi ma tontu xam nga yaa ngi may jéem a déglu les roubés ah. donc ñun li ñu bëgg mooy xam nga perte na perte na mais di grave c'est mes c'est mes c'est mes moom je vous ai suffisamment titillé que Euh, lu ngeen def li ngeen di tënku meeru bennoo yi. voilà dinañu dinañu parce que dañ bëgg nit ñi fu ñu gisee maire Yewwi Askan Wi xàmmee ko ci bilan wam ci exécution am ci liggéeyam donc ñun ñëpp cadre yi dinañ ci taxaw accompagner leen le maximum ci formation ci accompagnement ba noppi pour que population yi am li li ñu bëgg. Euh, doyen dafa wax lu am solo man je suis sur mes fins parce que débat wu décentralisation dafa am ay ay yu am solo quand Macky Sall ñuy wax naan territorialisation des politiques publiques. quand le fait territorial dicte l'organisation de l'espace public ak en œuvre des politiques publiques mooy na nag territorialité dafa solo mais Macky Sall li mu njëkk a def supprimer toutes les régions tey boo demee France région mooy chef de file du développement économique au niveau de la décentralisation. on a les terre bi terre le département est un fait qui relève de de de. ça n'a non je parle de décentralisation on parle pas. conseil conseil régional. régionales yi nga xam ne ñoom ñoo. créé des conseils ah, yeggali li may wax nit ñi xam nañ ko les ah, ah, ñi xam xam nañ ko. dañu am dayo territoire par exemple li tax moo tax Ousmane Sonko naan le mandat territorial Casamance ñun bu ñu ñëwee bokk na ci li ñuy proposé ci livre bi le territoire du développement que j'ai coécrit avec le président Ousmane Sonko mooy au delà de bu ñëwee on va réorganiser le Sénégal au autour de huit territoires yu viables. mu ne il bu ñu fi jëlee Macky Sall mii. d'accord 2024 2024 dañuy ah, réorganiser le Sénégal. Ah, non loolu la ñuy ñaan yàlla de yàlla xam nga yàlla moom loo ko ñaan meeloo. donc on veut on veut reconstruire le Sénégal autour des territoires viables li Macky Sall waxoon ci des acte 3 di defu ko. la lettre de politique sectorielle porte ma signature fii donc. li ñu bëgg mooy indiwaat les territoires andiwaat trois à quatre compétences de plus yu nga xam ne économie lay doon région moo koy gérer département ñu jox ko yenn yu mu yellool ville ñu indiwaat politique de la ville jox ko budget financement de la décentralisation ñun suñu objectif mooy après cinq ans de gestion cinquième année bi bëgg nañ toll ci vingt cinq pour cent du mooy l' objectif la moyenne mondiale ñuy def décentralisation. foofu la suñu bët nekk sori na débat sori na débat bi. il n' est pas nécessaire aussi ñu modifier le code électoral qui parle le code électoral les collectivités locales ñoom seen bopp. Mhm. mën a ab wutal seen bopp de nouvelles compétences. Mhm. yoo xam ne mën naa bañ a nekk sax ci loi bi. voilà merci xam nga loolu war nañ ko mën d'accord c'est une question intéressante j'accepte de discussion mais xam nga décentralisation bokk na ci li ko li tax état di ko nangu mooy compétence yi mu la jox mënoo ci génn. Ah, maintenant mën nañ ko yokk mën nañ ko yokk. problème bi mooy problème bi mooy tey jii dafa am compétence yu am solo yu nga xam ne dañ ko génne. danañ ko ci génn pêche élevage agriculture ñun région yi bu ñu ñëwee quatre compétences lañ leen di jox important région bu nekk di nga am sa plan de développement territorial am sa plan d' du mooy le schéma d' aménagement du territoire da nga koy gérer di ko continuer mooy l' organisation physique du territoire am sa marketing territorial luy tax sa territoire rayonné ba noppi les petites et moyennes entreprises yi nekk territoire bi ban stratégie ngay ngay teg. donc loolu loolu d' accord merci beaucoup Moussa euh, ci laaj bu mujj bi ñuy dem maître lan ngay tontu ci ñuy jàpp ni élection locale ñu génn euh, réglé na problème mu troisième mandat wu président Macky Sall. mais ça n'a rien à voir pour moi. d'abord damay. non non euh, maître baal ma rek soo bëggee tontu kii te temps tontu boo ko dama koy wax ne d'accord naa ci projet bi mu wax. pour que comme ni ñu defee parité. Mhm. jeunes yi en matière d'élection ñu jox leen un quota. voilà merci beaucoup maître nga ni ça n'a rien à voir élection yi. par exemple mais mais dégg nga par exemple mooy suñu wax ni problème résultat yi. rek problème bi xam nga Pape. waaw gis nga affaire mandat présidentiel. Mhm. yow bu la neexee. Mhm. bu élection ñëwee nga déposer sa candidature. ku mu neex nga déposer sa candidature. mais loi bi moo fixé si non attends taxawal na ku def ku def ñaari mandat nag. mu neex taxaw ma déglu rek. waaw da nga ni ku mu neex dafa xam ne bokkatuñ ci. ku mu neex waaw waaw. looloo tax mu am ñu créer benn organe au niveau conseil constitutionnel. boo mhm. déposer say say say say say. après ñu saytu ko foofu ñoom ñoo koy saytu. d'accord dégg naa bu fekkoon nag ne yow da nga nekkoon président. waaw ñoom ñooy wax ndax jeexal nga. Mhm. wala jeexaloo. donc ça n'a rien à voir loolu aussi. d'accord ça c'est ce que l'on appelle la recevabilité de la candidature. ok ça n'a rien à voir. d'accord avec l'élection. merci voilà donc pour moi. vraiment loolu loolu ñuy wax rek ndax daf ko régler wala. c'est-à-dire euh, nañu respecter Sénégalais comme la question du troisième mandat. bu ñu nee. Mhm. li wote dem bi moo ko réglé c'est qu'en réalité ñi koy wax sax duñu ay démocrate. Mhm. la question est réglée par la constitution mieux par le président Macky Sall. Mhm. dama wax toujours nit ki war nay mooy di weddiloo kilifaam ay waxam. gis naa ñu bari ñu nekk ci benn bokk yaakaar ak affaire nañuy waxe boo ko dégloo dafa mel dañoo bëgg Macky Sall weddi waxam te jàpp naa ne kilifa nit warul weddi loo waxam ay kilifa day ngay su fekkente ne dañoo bëgg ne euh, élection locale yi moo war a régler troisième mandat bi c'est que boobaa ñun gëmuñu constitution de la république du Sénégal su boobaa gëmuñu sax waxu Macky Sall la question est réglée et par la constitution et celui qui a écrit la constitution bàyyi nga dafa am bëgg dem benn waaye moo la waxtaan la ci xew yi amoon Mali mobilisation bu ngand waa ji ne la mobilisation a légalisé le le la transition de cinq ans ma ne ko li nga wax lu garaaw la ma ne ko li nga wax lu garaaw la parce que na boobaa ay nit maanaam ay millions nit mën nañoo wàcc bëgg a légaliser loo xam ne la loi daf koy tere su boobaa day compliqué encore une fois pour man la question du troisième mandat évidemment moi je suis l'une des principales victimes de waxuma ko parce que dama bëgg di wantewu mais dama gëm ne njariñu Macky Sall njariñu Sénégal mooy bu fi toogee ba mandaam jeexee. xam nga lu ko wax. Mhm. en 2000 Sénégal dañoo mere Abdou Diouf. fal Abdoulaye Wade en 2012 Sénégal dañoo fal dañoo mere Abdoulaye Wade fal Macky Sall su yàlla dogalee beaucoup ci élection ce sera la pour la première fois Sénégalais yi mën a tànn un président sur la base de deux choses programme ak personnalité et je crois que defal loolu Sénégal moo nar a nekk président bi ko jëkk defal Sénégal parce que un Senghor moo fi indi indépendance ak loo ci mën a wax Abdoulaye Wade moo fi indi la première alternance le fait de permettre au Sénégal pour la première fois ñi nga xam ne ñooy xëccoo réew mi maanaam ñu mën a teg ay xalaat ak ak seen i personnalité c'est ku defal loolu Sénégal defal nga ko lu rëy rëy kon ñiy weddiloo Macky Sall ay waxam nañ ko bàyyi ñiy weddiloo constitution bi ay waxam nañ ko bàyyi du Moussa Balla Fofana mhm. ndax loolu lu ñu mën a jàpp la que résultat yi ñu am ci local yi. Euh, réglé na problème troisième mandat bi ndax mën nga ko jàppee noonu wala da ngay da ngay fekk si li nga xam ni moom la Moustapha Diakhaté wax. mën naa ko ci fekk si jusqu'à un certain point. Mhm. mën naa ko ci fekk si parce que constitution bi dafa clair. Mhm. que ne troisième mandat moom. non non clairul moom. non clair non non non ñu ko bëgg a lëndëm wax dëgg yàlla clair dafa clair moom wax ma leneen moom <laughs> wax ma leneen bu fekkente ne on se base sur les différents nationalistes d'accord kooku mën nañu moom mais man texte bi moom bu ma ko liiree en tant qu'intellectuel jàng français mën a lire mhm. bu ma ko liiree c'est clair en plus y a Abdoulaye Wade jaar na fi le débat s'est posé l'esprit de la loi est clair Sénégal li ñu bëgg mooy ñaari mandat na fi yow mhm. loolu moom leer na deuxièmement tam wax na dëgg ñi nga xam ne dañu wër buur di ñoom affaire bi neex na Macky Sall bu fi toogee mu gën a neex ñoom ñu koy pousse pour mu def troisième mandat ñooñu problème lañ ci réew mi donc dama koy fekk si li mu wax ñaari point yooyu waaye nag kilifa dëgg la kenn du ko weddil ay waxam waaye waxi kilifa kat warul dellu ginnaaw kilifa bu ne déet déet la war a doon waaye kilifa du ne déet jékki-jékki ne waaw jékki-jékki ne waaw jékki-jékki ne waxatuma waaw waxatuma déet nii wii nii non bi Macky Sall moo fi andi coow lii yëpp boo gisee nit ñi di di di di spéculer loolu moo ko andi donc bu ñu bu ñëwee élection euh, mu demee nii nit ñi dinañ ko dinañ ne ah bu xëy na bu nekkoon ci xelam day génn na xelam xëy na noonu lay comprendre nit ñi euh, liñ bëgg a wax mooy xëy na nekkoon na ci xelam parce que boo ne waaw du ma wax waaw du ma wax déet donc il se peut nga wax waaw il se peut nga xam déet mais bu élection yi ñëwee comme ni ma la waxee sànq en euh, début de l' émission Dakar. Thiès Diourbel ñu ñu lamine la fa de manière claire Ziguinchor moom amoo fa daanaka 30 pour cent sax amoon ko fa si euh, au niveau de euh, Kaolack benn euh, Serigne bu téye ko xamaguñu fu muy féete en dehors de Saint-Louis ak ak ak Ferlo moom fi ci des yëpp il a de grosses difficultés xam nañ Sénégal ni muy demee zone yooyu soo ko pertee c'est problématique si ñun bu ñu liggéeyee li ñu war a liggéey dem ci législative dans la même dynamique nous allons confirmer notre position politique te loolu ñu ciy ñaan borom bi rek mu defal ñu ci ndam merci beaucoup jërë ngeen jëf maître Ousmane Seye bu fekkente ni am nga looy looy tàggoo ma bàyyi la nga Pape li may tàggoo mooy di la gërëm ci invitation bi merci beaucoup euh, di wax ne jàngat yi ñu jàngatee ci élection yi vraiment di ciy indi affaire troisième mandat yooyu ça n'a rien à mhm. euh, di encore féliciter Sénégalais yi. encore wanewaat nañ seen bopp ci ci Sénégal xam ne c'est des citoyens majeurs. Mhm. Euh, di félicité aussi les autorités sénégalaises. l'administration mhm. sénégalaise comme ni mu organiser élection yi. di féliciter électeurs yi. di féliciter aussi état bi. que vraiment ces élections li ñu ci mën a tirer mooy c'est le renforcement de la démocratie c'est la promotion de la citoyenneté di féliciter encore ñi gagné ñi nga xam ne ñoom lañ gagné ma leen di encourager c'est ça la démocratie ainsi va le monde. merci beaucoup Moustapha Diakhaté. waaw euh, euh, mhm. euh, bu ne nga ni jàmm ndax tey jii ñun Sénégal gi boo xoolee li xew Mali. mais Moustapha benn question rek nga baal ma ci xam naa ne sax dangay tàggoo par exemple ay Aïdara ki gaañ Aliou Sall mu gaañee ko à Guédiawaye ndax dafay dafay jël postu président des maire du Sénégal. no bu fekkee mandat bi jeexal. le président des maires du Sénégal c'est élu par les. bi maire bi Guédiawaye moo ko moom wala. non non non non maire bi il a été candidat il a été en tant maire de Guédiawaye. Mhm. waaw Ahmed Aïdara mën naa nekk mën naa la mairie le café le président du conseil enfin de l'association des maires n'appartient pas à la commune de Guédiawaye. Mhm. ça appartient au maire candidat bu ne. man nga mën nga ko gagné élection la. mais moom ci bannière Guédiawaye la ko demandé woon. non non non en tant que maire. ah d'accord ok euh, du lu ñuy donante. d'accord ok ah, donante bi moom nañ ko yemale ci yeneen waaye bu ñu ko dugg ci affaire loolu. d'accord allez alors euh, li xew Mali ñu ngi koy dund. Mhm. xew Guinée lu ko jiitu. xew Burkina ak li xew Burkina Faso. Mhm. je crois que loolu war naa war nañu war jox ñun Sénégalais ñu gën a jël suñu responsabilité. xam ne suñu réew mi. Mhm. ah il est menacé même parce que li ma gën mooy gaa ñi nekk Mali bëgg ko màbbal nekk nekk Burkina Faso bëgg ko màbbal bu ñu paree duñ ci bàyyi Sénégal mhm. kon encore une fois ñun ñi nga xam ne dañoo jóg ne dañuy politique nañu jàpp ne la première la sécurité du pays ñun la gën a incombé ci nañuy waxee ak ci nañuy defee parce que nag am na nu ñuy décrédibiliser am na nu ñuy décrédibiliser le pays. buñ deful ndànk la dal Mali mën nañoo dal la dal Côte d'Ivoire la dal Pelé mën nañoo dal euh, Burkina Faso kon encore une fois ñun ñi nga xam dañoo tànn ne dañuy def politique c'est-à-dire dañ fay nekkal askan wi ku ne jàpp ne la sécurité du Sénégal mhm. moom moo ko war a aar d'accord la ko ca war à la limite sax man naa jàpp ne waru ci président de la république d'accord bi ci des mooy euh, damay ñaan rek ñi nga xam ne élection jàll ne ñi falu ci les six cent une collectivités locales kenn ku ne ci nag góor góorgóorlu ba la ñu yaakaar ci moom mu def ko benn may lancer un appel au pouvoir au président de la République à ses ministres par rapport ak domaine de compétence yi ñu jox communes yi ñu yombalal leen seen liggéey. ko ak loolu bu ñu ko defee. d'accord jàmm rek man te jàmm jooju nag Sénégal rek moo ci jëriñ. merci beaucoup Moussa Balla. waaw euh, mot de la fin nekk lu dul ay gërëm ay ay remerciements. ci invitation bi c'est la première fois que je. que may ñëw di participer sa émission c'est vraiment un plaisir. depuis la diaspora on te suit. tu Merci un excellent beaucoup. Euh, di remercier askan wi. Mhm. ndax kat askan wee ñu meññi lépp lu ñu doon ñoom lépp lu ñu doon ñoom la. Mhm. Euh, donc di leen remercier ñoom bu ñu ëlbatikoo wóoluñu dañuy sant yàlla. di remercier ñi gagné ak ñi perte aussi parce que gëm naa ne kenn ku ci nekk yéene bu rafet nga amoon pour sa communauté. donc que ce soit benn bokk yaakaar comme comme importe coalition nekk ñi gagné ak ñi perte ñëpp di encourager ils n'ont pas projet de projet de de société la projet de localité la yéene nga am sa askan bu ko yàlla dogalul beneen yoon a ngi fi mën nga ñëwaat donc loolu lu am solo di ñaax nag ñi nga xamante ne nii euh, gañe nañ. Euh, je prends des personnalités yu nga xam ne dañ ñu marqué ku mel ni Ahmed Aïdara par exemple Khadija Mayekor euh, nga xam ne c'est une dame formidable mu ñëw def lu extraordinaire le jeune maire au niveau de de de, de Yoff. Yoff personne ne l'attendait mu ñëw xam nga avec beaucoup d'humilité et ça dafay dafay wax day ñëw ci li doyen bi doon wax ne jeunes yi dañu war a bokk. Mm-hmm. donc on voit de nouvelles têtes on voit benn nouvelle dynamique nañ ñaan yàlla dynamique boobu ñu porter ko. accompagner ko Pikine Ouest yaa Cheikh Diop. Cheikh Diop euh, Cheikh Aliou Bey par exemple. gagné na aussi Diamaguène ah, donc on voit de nouvelles têtes on mhm. voit des des jeunes. et puis Silmaxamba Koli tam sama dëkk boobu. yaa sama dëkk boobu Cheikh Ibrahima Ndiaye Cheikh Ibrahima c'est Cheikh Ibrahima nga xam ni moom itam xale la macha allah. c'est ça donc di remercier nag euh, beral loxo le président Ousmane Sonko. Mhm. c'est une c'est une fierté. Mhm. Euh, je le vois évoluer énormément de courage beaucoup de détermination. di di mener cette partie bi ak benn main main bu nga xam ne main assez assez assez assez assez rigide quand il le faut quand c'est di doxal ni mu war a doxalee ñu topp ci ginnaawam donc. ñu ngi koy féliciter parce que on l'attendait ça prend du courage nekk candidat élection 2024 ba noppi dem au niveau des euh, des locales di remercier Barthélémy Diaz ah ki nga xamante ne nii fierté la pour ñun donc di remercier ñëpp donc munu mënu mënuma guddal euh, di baral loxo nag waa Bawol a Bawol nga xamante ne nii euh, lu baax ci man ñooma ñooma non nekkuma foon candidat parce que dama amoon kersa le fait que ne maa ngi dans la diaspora depuis des vingt ans c'était un peu difficile pour man ma ñëw ne def leen ma candidat waaw munu munu ma ko woon sama ngor mayu ma ko woon mais nag bàyyi naa ko seen loxo euh, en tout cas remercier di remercier di di jégalu nag sama doyen yi xam naa ne tey xaw naa leen a yënga déet yow kay yaa ñàkk tooy kon mbokk yi mu nekkoon édition spéciale bu leen télévision Futurs Médias doon ànd ak yéen euh, ñuy gërëm euh, Chérif Dia ak ma Biram juuf ci ni ñu jàppale vraiment ci coordination mission bi ah, di gërëm Vieux Diouf ak ñi mu àndal itam ci régie bi ah, di leen jox euh, rendez-vous ci beneen jotaay bu ci àllande jërë ngeen jëf